baabun li ab bunt la fil jihaadi ci jihaad jihaad mooy xare gi yéefar bi ngir mooy xare yu yéefar ngir yëkkati baatub lislaam loolu nag bu dee ci fiqu Maalik dañ koy wàññiwaale ci fardu kifaaya yi nga xam ne moom bu fekkee ne yéefar bi songuñu bu fekkee ne yéefar yi songuñu sax jullit ñi du tee rek at mu ne ñu war a seet fa nga xam ne fa la yéefar yi gën a dulli ñu xeex fa ñoom ndax yaatal fa lislaam bu fekkee ne mën nañoo dëkk sax wàll yëpp ko jullit ñi dañuy song ci wàll yëpp loolu nag ndax léegi ba tey atte boobu noonu la war a demee bi nga xamee ne adduna bi ñu la soppi ko wala déet wala am nay gëstuwaay daal li moo nekkoon atte ci fiqhu Malik bu fekkee yéefar yi ñoo njëkk a song nag moom jihaad day soppi ko fardu xëy nin mooy jëmm di nekk war a takku bañ delloo yéefar yi gannaaw moom du mën a ñàkk doon ko wax ci mujj bunt bi wal jihaadu jihaad faridatun farata la yaxmiluhu waaye dana ko yenu baxdu naasi lenn nit ñi xam baxdin welis lenn dana jihaad farata la waaye farday kifaaya la mooy bu ñenn ñi demee rek ñenn ñi mën nañoo bañ a dem ndegam yàkkal lislaam rek la waaye du yéefar yoo song benn dëkku julit kon fardu kifaaya la bu ñenn ñi demee rek jaan wàcc na ñëpp bu ko ñëpp bokk yi bàyyi ñëpp bokk am bakkaar wa ahabu li gën a sopp ëli naa jëm jëmi Malik am laa yuqaatala mooy bu deeful xeex ak alxabi yu noon ya te mooy yéefar yi xataa yu doxaw ba te deefe woo leen ilaa diinillaahi jëm ci diini yàlla yi daa wax lañ gën a sopp rek waaye nee nañ sax loolu war mooy buñ bëggee xeex ak yéefar yi duñ jekki-jekki songu leen te leen njëkk a wax ci lislaam ne leen ñoo leen tuub tegale ñetti fan bis bu ne ñu leen ci ñoom ne leen ñoo leen tuub su fekkee ne gànt nañ dugg ci lislaam ñu gaaral leen joxe galak joxe galak mooy li nga waxoon ci buntu asaka ne moom la ñuy fay ba bu ne ñu nangoo koo fay bàyyi lislaam tasaaroo duñ ko xeex seen yoon du nekk ci lislaam ba tey loolu ñu ko nangoo baax na buñ gàntale yooyu yaar yépp nag nangu ñoo dugg ci lislaam nangu ñoo joxe galak googu nag waaw su boobaa ñu xeex ak ñoom illaa an yoo xaajiloo naa ndare bu dañ noo gaawee mooy ndare bu dañ noo njëkk a song maanaam li mu wax léegi ci bala ñu leen a song njëkk leen a woo ci lislaam ba xam daañu nangoom déet la wax ne kat loolu dañuy jékki-jékki song moom bu fekkee ñoom njëkk a song moom fay rek moo ci mën a sës waaye xam nga ne amu mooy ñu yaatu di leen jëm di leen woo ci lislaam te ñoo njëkk a song moom ah song rek fay moo ciy topp fa ina an yuslima benn ñu nangoo tuub aw yu addoo la ñu nangoo joox al jisiyata galak wa illaa ndem gànt nañ yaar yëpp xootiloo xeexee fa ñoom woote bi waxoon lay ne mel ni yow moom yaar rek ci ma am ñu nangoo dugg ci lislaam mbaa ñu nangoo joxe galak te bàyyi lislaam te saaroo nu mu bëggee moom lislaam te dara du ko xatal ba ngaantoo yaar yëpp nag ñu xeex ak ñoom wa innama tuqbalu naka def na nangu minhum ci ñoom al jisyatu galak ida kaanoo ndem nekk nañu xay fatanaa bihum foofu xam ne dañu leen jot axkaamanaa sunuy àtte fa ama in baamudoo daal ndem sori nañu min naa ci nun falaa tuqbalu def na nangu minhum ci ñoom al jisyatu galak bi ñu nangu sax ñu joxe lempo rek ñu koy wax galak te bañ a tuub day fekk ñu jegenu nga xam ne lu ñu yëngal ñu yëg ko waaye bu fekkee dañ ñoo sori ba noppi nangu ñoo donnu si te it nangu ñoo tuub xanaa galak rek nañu wax a joxe kooku lu baax joxe galak yi balay baax ñu jege ba nga xam ne suñ àtte day mën a aw ci ñoom ñu xam lay xew ci ñoom waaye bu ñu soree ba noppi nangu ñu joxe galak xanaa nangu ñoo tuub kooku du baax lay baax moom bu ñu xasee sori mooy tuub rek waaye joxe galak moom loolu bu ñu xasee sori illaa an yartaxiloo ndare bu dañoo nangoo laxas illaa bilaa dinaa ba ci suñu réew wa illaa ndéem nangoo ñoo laxas jege si xóotiloo xeexee fa ñoom xanaa bu fekkee dañoo sori nangoo ñoo tuub galak lañ nangoo joxe te gis nga dañoo sori ñun la faaw kon dañuy jege si bu jege see baax na kon te joxe galak bu nangoo te jege si nag kon ñu xeex ñoom rek wal firaaru daw minal xadd yi ca noonu ya minal kabaayiri bokk na ci bàkkaar yu màgg yi minal kabaayiri bokk na ci bàkkaar yu màgg yi ida kaanoo dem nekk nañu mit lay xadadil muslimiina di ñaar capp lu yëpp jullit mi fa àqal la topp lu ko yees dafa wax ne nga bokk jullit ñi ba noppi nag ñuy xeex yu yéefar ngay daw ëpp naa def moom ci bàkkaar yu mag yi la bokk te na ko suñu borom waxee ci alxuraan dafa diis lool ndax dafa wax ne wa man yuwallihim yawma isin duburahu illaa mutaxarrifan li qitaalin aw mutaxayizan ilaa fi'atin faqad baa'a bi xadabin min allaahi wa ma'waahu jahannam wa bi'sal masiir alhamdu dafa diis ndax dane bis boobu ku leen gannaaw daw lu may da ngaa def pexe daan leen daw daw boo dati ko far song mbaa nga xam ne mel na yow dong boo songee da ngay daan te du am njëriñ nga daal di gaaw daw rek làqutu ci kuréelu julit ngeen bokk seen doole muy jenn mu ne ku daw te te yow yaa tawut daw dëgg rek moo ko tax a daw kooku moom nee na dina jaay na morom yàlla te kenn wa ma waaxu jahannam sawaral jahannam la jëm wa bi isal masir loolu moo tax ñu boole ko ci bakkaar yu mag yi ba muy aay noonu nag mooy bu fekkee ne julit ñi dañ moo ñaar ca kese yam ci mbaa sax mëtu ñu ñaar ca waaw dañ moo ñaar ca dong yam ci mbaa mëtu ñu sax ñaar ca bu boobaa moom la daw góor yi araam fa in kaano ndem nekk nañu ak tara di ëpp nañ zaalika ci loolee falaa ba sa kon deetu ay bi zaalika ci loolee bu fekkee ne ëpp nañu ñaar ca waaw ni ki ñett ca nañ ñu mbaa daal tamit ñaar ca rek moom loolu ba xam ne daal moom su boobu bu ñu xasee ëpp ñaar ca rek moom ni ki julit ñi nekk benn junni yéeféer yi nekk ñetti junni waaw su boobaa kon daw du aayati daw ba ñoo xam ne araam na ci julit du aayati wa yuqaatilu def na xeex ak alxabibu noonu ya maxa kulli barrin ànd ak jëpp ayu baax wa faajirin akub saay saay numéro yi laati ci kilifay julit ñi maanaam ku ñu fal ci julit ñi ku ñu fal bu di julit mu jiite julit ñi su wootee jihaar rek moo xam ku maandu la ku aw ci yoon wa kooku xam nga ne ñëpp ko war a wéy ci nattable woo ko saay-saay buñ ci tekk yi moo lay jaaxal xanaa maanaam ki woote jihaar nga xam ne mooy njiifa mooy njiifa julit ñi mooy kilifa julit ñi day ku maandoo di ko day ab saay-saay ndax kooku soo wootee jihaar daañu ko wéy ji ànd ak moom jihaar loolu lay wax ne waaw ndax li ki nga xam ne kilifa julit la waaye ku kàccoor la taxu koo maandu bu wootee jihaar say boo ñu wéy ji ko rek ndax yàlla ba nar a yëkkati lislaam mën na koo jaale ci seen kilifa boobu nga xam ne taxu koo maandu li ci dara yàlla moom lu ne mën na ko nañ ko wéy ji rek wala ba sa ayit bi xat li man ci rey koo xam ne usira jàppeef na ko minal enlaa ji ci ponkali làkkat yi làkkat bi nga waxee mu wérul arab ay yéefari mag yi nga xam ne duñu arab rek la wax ne kuñ ci jàpp mënees na ko rey loolu waxi ndong la waaye du du yéefari nekk ay làkka ndong yéefari nekk arab it noonu la ci gàttal rek mooy ilimaan ji ci boppam bu ñu xasee jàpp ñenn ci xare bi te ñu bokk ci yéefar ya góor ñi nga xam ne ñoom mën nañoo xeex moom mooy seet moom ilimaan ji koo ci xam ne dafa ne ne rey rek ci rey rek ci gën mu rey ko koo ci xam ne def ko jaam la seet ne moom la koy def ñu def ko jaam bu ne da leen di gàll galag mooy ñu koy fay loolu baax na bu ne day jotoon te ñoom kenn ku ne jot sa bopp loolu baax na bu ne da leen di baal noonu xëy leen ngor mi dem loolu daal moom moo koy seet mu des nag gone yeeg jigéen ñi gone yeeg jigéen ñi moom la ci mën am rek mooy def leen jaam benn wala wax leen jot seen bopp ñaar wala jékki-jékki bàyyi leen ñu dem waaye ñoom ñoom desu leen tey gone moom jigéen desu ko jékki-jékki rek kon nag li wax ni ci ponk li ñu dul ay arab te ay yéefar mook ñooy bokk ci arab yaa ci yam ate boobu moom limaan jee koy seet rek wala waqtul doo fi bay ahadun kenn baax da amaanin ci gannaaw kóolute yéefar bi ñu xas may amaan maanaam ne la duñ la rey loola kat nee na jeex na dañu war a sàmm loolu deesu ko rey ndax wala wax fara deeku firi loolu ñeel leen bi xax diñ ci ko lore jullit moo war a gën a sàmm wolore donte ak yëfar la ko seqalit suñ borom da koy fonk loolu kolore na ko sàmm bu baax a baax kenn du firi ñoom kenn du feccee ñoom wala leen xas fas ak ñoom te buñ leen nee duñ leen rey wala joti ko rey leen loolu fecc wolore la wala wax fara deefu rey an nisaaw jigéen ñi wa sibiyaanu ak gone yi doon naa ko wax léegi maanaam lislaam moom xeex bi muy xeex xol bu tàng wala fayantoo wala dugg ay tuxut lislaam day sàmm teggin ci xeexam jigéen kenn du ko rey gone kenn du ko rey waytani wu def na teet xatlu ruux baañu rey labbe ya wala axbaar yi ak fóore ya illaa an yu xaatiloo ndarab dañoo xeex dañu sàmm teggin bi ndee jihaar labbe yi ak fóore yi maanaam ñooy bay beru fee di jaamu yàlla ci yéefar yi mbaa ñu gëstu xam-xam rek noonu seen yoon nekku ci xeex ba defuñ ci dindiwuñ ci joxewuñ ci xalaat dañ leen di romb rek jàll bu fekkee dañ caa dugg ci joxe xalaat nag waaw koy suba waa ñu rey leen moom ndax bu ñu cee joxe xalaat moom moo ñu gàddu jees yi mbaa fetal ci xeex ya moom wa kadalika naka noonu almaratu jigéen tuqtalu def na ko rey ita qaatalat nam xeexante na jigéen de noonu duñu ko rey waaye mooy tam bu fekkee dugg na ci xeex bi di xeex ñu rey ko waye joos dana dagan amaanu waye joosu dana wéy amaanu addinal muslimina kóolu teg ka gën a suufi ci jullit ñi ala baqiyatihim ci ñu def ci ñoom ñëpp dafa wax ne nag te gën a suufe julit ñi ci saahir ndax ci baatil moom yàlla xam gën a suufe waaye ci saahir ki nga xam ne moom su teewee mbir kenn du ko laaj xalaatam su teewut kenn du ko xaar ci mbir kooku xam nga ne wax du yàlla yàlla xam waaye ñàkk na solo ku mel noonu ne li ñu ñàkk ñàkk solo bu mayin ak yéefar amaan ne ko des la rey ñëpp war a jàpp loolu wéyal ko mooy kenn du jekki-jekki reyati kooku mooy ci tax julit ñi sañ a rey kooku وكذلك نكنون المرأة جيجين والصبي أغني إذا حق لنهم خلون الأمان كويتة جيجين صاحبين أبي يفر أمان نورا سامي ولا بني يفر بابا غني تام فك ماين أبي يفر أمان تلم ديف خم نكو أنام غني لن يواي لم ديف خم نكو كوكو بتاي نورا سامي ولا بني راي كوكو وقيل وخيس نين إن أجاز دويل نذلك ولا الإمام الإمام با جاز موي am nañu ne bu fekkee ne jigéen mbaa xale mbaab jaam ñoo ci yem da ci am ku may amaan am yéwër dañuy bàyyi ilimaan ji seet su ko wéyalee mooy su fekkee wéyale ko doy wama loo xam ne xanima màng na ko al muslimuuna julit ñi bi ijaasin ci lokki lokki mooy xeex ak sonn xeex ak toona fal yaqus kon na jël al imaamu ilimaan ba xumusahu ak juróomeelam wa yaqsimu tamit seddali al arbaxatal axmaasi ñeenti xumus ya bayna ahlil jaysi ci diggante ñun xare ba loolu julit ñi ci biir xeex bi ak coono bi buñ ci amee dara ci alal loolu mooy màng dana wax loolu bu fekkee dana jekki jek am alal te sonnuñu ci xeexuñ ci sonnuñ ci li ñuy wax ñi mooy dañoo xeex ba sonn ci kooku neen lañ am ci alal ñoom julit ñi ci xeex ba buñ ko defee juróomi xaaj ilimaan day jël benn xaaj ba yu xumus ba yóbbu ko ci bayti maal ñeenti xaaj yi des na moom la ñu boole ñoon xeex mu julit ñi ñu seddoo ko lay wax naa mu sedd leen ñeenti xumus ni وقسم ذلك سدل لولي بولد الحرب ci réewum xare ba aw laa moo gën a yee maanaam ñu séddalee ko foofee ñu xeexee ñoom ba nangoo ko ci ñoom moo gën sëf ko ba ñibbi si door koo séddalee ndax di ko séddalee foofu ñu jàkkaarloo moom seen xol di ca tàng ñu loolu xëy na mu jàjj leen moo gën wa innama yu xam su naka def na juróomeel wa yàq sama di def séddalee maa la nga xam ne ooji fa lokkeef na alayhi ci moom bil xayli ci fas wa rikaa bi ak i gëleem wama ak la nga xam ne xoo ni ma màngeef na ko te xitaalin ci xeex lokki mooy song rek attaqué dafa wax ne nag li la wax takk ko maanaam la nga xam ne jullit ñi song nañ ca xeex ca ba jot ca loolu lañu am dara loolu lañu juróomi xaaj jël benn bu yóbbee ci maal jox leen ñeenti ñuy seddoo day bañ nag ñu dégg rek yëfar yi dégg ne jullit ñaa ngi ñëw te ñu lañ baree ngànnaay ñu lañ baree mbooloo njaal jékki-jékki daw ñoom yëfar ya ñu nekk jëkk day la alal ji rek noonu nga xam ne kenn sonn ca kenn defu ci dara jooju alal moom dañ koy bàyyi ci loxo mooy seet nañ koy defee waaye duñu wax ne léegi faaw waa xare bi am ci ñeenti xaaj ñi ci boo ko defee juróom déedéet wala ba sa ayit an an yu kala bu dee fi lekk minal ganimati ci màng ga xabla an tuq sama njëkk dee fi séddale ak taxaanu ñaama wal xalaf ak waxal ba li man ñeel ko nga xam ne ihtaaja aajo woon ila daalika jëm ci loolee dafa wax ne bu amee luñ jëlee ci yëfar yi ci xeetu alal nag damay aw ñam boo ci bëggee lekk bu mën ngaa lekk dafal ngeen seetleegu ko bu dee yafal bu ñu yafalee ay fas ni ki ëpp jur dama bu dee yafal bu ñu yafalee jur ni ki lu war a jox lu mën a joxu fas ni ki ngooñ yooyu mën nga jaatu bu jox soo fas dama nañ ko nangoo ci yëfar yi te kenn seetleegu ko buñ ko fasee seetle ba kenn ku ne am wàllam nag moom sa wàll rek ci nga sañee xam nga ne waaye buñ ko seetleegul daal bu dee ñam boo xiifee mën ngaa lekk bu dee lu mel ni joxo fas mën ngaa tibb jox sa fas waaye lépp na nga bañ a yàq ak bu mën doon bu ci yàq bu ëppal wa innama yusamu naka def na sedd li man ñeel koo xam ne xadara teewoon na alxitaal xeex ba aw taxallafa wala mu reesaanu mooy wala mu des gannaaw xam ne xitaal wëlis xeex ba fii soxli muslimina ci soxli si jullit ñi min amri jihaadihim ci mbirum seen jihaad nee na mu ngee sedd li alal jooju nag koo xam ne teewoon nga xeex bi rek fekke woon nga xeex bi di xeex daal yow sedd koo xam ne nekk woon ci jëmmi xeex bi waaye la nga nekkoon ca la te xam nga loolu bari na ñu nekk ci loo xam ne du xeex bi dëgg dëgg waaye xam nga ne ca la nekk donte ñu togg ñoom li sax loolu mënta ñàkk yépp daal leen sedd mooy sax mu def na sedd lil mor yi ñeel aju tawat koo xam ne fekk woon ne xeex bi di xeex gannaaw bi mu mujj tawat waaye teewutoon fekk woon na ko di xeex nga xam ne moom daa ñëw doon xeex ba yàgg rek tawal ji dal ko wala gannaaw bu ñu xeexee ba noppi la ko tawal ji dal waaw kooku des na ko sedd wañu fara si ak ñeel fas ar rahiis yi aji tëj tëj day dal fas yu ci weex te du ko seedal ci yooyu nag moom ndox du ko yombati waaye du teye fas yi bu tëjjewut waaye fekk woon xeex bi moom fas yi du tee ñu sedd ko ay jamono moom fas daa am solo lool ci jihaar jëmam teew fa rek am na ci solo moo tax dañuy sedd fas na ko wax léegi wa yusamu def na sedd lil farasi ñel aw fas sax maani ñaari cër wa sax man akub cër li raaki bi ñel aji waram booba ma dañ daan wàññi fas yi fas yu nekk ñu jàppee ko ñaari jëmm yu taxaw xam ne fas yu ñaari saam lañ koy tegal ka ko war ñu tegal ko benn saam nga xam ne boo waree fas ñetti saam ngay teggi wala yus xam deful sedd li xam te ñeel jaam wala limratin du caageenu ñeel jigéen wala sabiin du caageenu gone maanaam ki ñuy sedd nag faaw day nekk gor tey góor tey mu kàllaf waaye duñ sedd jaam duñ sedd jigéen duñ sedd gone illaa añ witee xam ne rek dafa àttan ak sedd yu gone ga allafi ga nga xam ne lam yaxtalim géntut al qitaal ak xeex wa yu ji safoo te ko wéyal al imaamu ilimaan ba wa yu qaatila te muy xeex fa yus xamu kon def na sedd loxo ñal ko lu may nag moom xale bi xale bi ni ci at waaye jëmm ji moom mën naa xeex atu rek moomatu ati mag waaye jëmm ji moom am na dara ji am na doole xeex te ilimaan may na ko ci ndigal mu topp ndigal la xeex kooku mu ne dañu ko sedd ni mag wala yu samu deful sedd lil ajiri ñeel bàjj illaa an yuqaatila dara dafa xeex bàjj mooy employé maanaam koo xam ne daal yow sa bopp yaa ko fay ne ko nan dem ci xeex ba bu ñu demee nga dama topp tool saw fas la ci aju mbaa nga dama xottul sama yére ak sama bagage nga xam ne yaa koy fay yow la ngeen juboo mooy yaa koy fay ci lam lay defal kooku bu ñëwee bu ñëwee ci loolu xeexut kenn du ko sedd bu fekkee daa def loolu ba àggal boole ci xeex nag ñu sedd ko te du tee nga fay ko yow it wa man aslama ku tuub minal abdi yi ca noonu ya xalaa shay'in ànd ak dara fi yadihi lu nekk ci loxoom min amwaali muslimina ci alal jullit ñi fa xoo moom loolee xalaalun aji leew la loxoo ñeel ko nee na yéefari koo ci xam ne ñoo nga tuub yoraale alal joo xam ne ab jullit ko moomoon su boobaa dañ dañ koy bàyyeeg moom su boobaa loolu kenn du ko nangooti dañ koy bàyyeeg moom wa man ishtara ku jënd shay'an dara min haa ci alal jullit ñi minal xaddi yi ca noonu ya lam yaqusoo kon du ko jëlaati rabbuhu boromam rabbuhu boromam illaa bi tamani dara ci njëg ga nee na boo demee ci yéefar yi jënd fa dara indi ab jullit ne ah lii de maa ko moomoon ñu ko nangawal noonu ci man ci doole rek ñu topp ko muy lu sax ne moom àll la moomoon yéefar yi ko nangawoon ci doole rek yow na nga dem jënd ko foofu xam nga nga caa fay njëg kon nee na bu ko bëggee jël bésu ko ko aaye waaye du day remboursé njëg nga ci fayoon njëg nga fayoon ca foofu moom njëg nga ko jëndee woon dala koy delloo dor ko mën a jël wamaa loo xam ne waqaxa tàbbi na fil maqaasimi ci séddale min ha ci alal jullit ni farab bu fa boromam xàq moo gën a yeyoo bi ci moom bi samani ci njëkk nee nag bu fekkee alal ñu jële ci yëfar yi dañ koo séddale ba kenn ku ne jël sab saam nga gis nag ci saamub jàmbur loo xam ne yaa ko moomoon yëfara ko na nga woon ci yow rek waaye yaa ko moomoon kon nee na doo mën a jekki-jekki jël ko ndax doo ko jëlee noonu ab saam wàññi ko waaye mënees naa seet nga fay ko njëgg te jël ko wamaa loo xam ne nag lam yaqa tabbuut fil maqaasimi ci séddale farab bu ko boromam xàqu moo gën a yeewu bi ci moom bilaa taman ci dul njëkk loo xam ne sax gis nañ ko ci alal yi muy alal ñu jële ci yéefar yi yow dul bi nga moomoon ko ci lu sax bu réew nattal nañ ko nga xam ne waat nga ne yow yaa ko moomoon te génn sa loxo ci genn anam ku ko war a génne bu ku yàlla ku la ko war a xañ su boobaa ndegam séddale ko nañu jékki-jékki jox la ko lu ajoo nga dafi joxe dara wala nafa la déet ndool leen illaa minal xumus yi dara muy bokk ci xumus ba xalal ijtihaadi ci koy farlu ga minal imaam yi ci ilimaan ba ndool leen mooy ilimaan bi seet ñi nga xam ne jàmbaar lañu woon ci xeex bi mu am lam leen dolli ndax njukkali leen ko loolu nag nee na moom xumus ba nga xam ne moom la war a yóbbee ci maal ku mu dolli ca la lay dolli waaye ñeenti xaaj yi nga xam ne moom la waa xare bi war a seddoo moom us jël di dolli kenn wala yakoonu bu nekk it daalika loolu xablal xas mi njëkk seddali ga daa waxe noonu rek waaye noonu li mu waroon wax kay mooy bu fekkee ne loolu mu ciy bëgg a teg ne wasala bi rek yi jëmi ne nafali bokk na ci ndolleen la maanaam bu ilimaan ne kuréen ab yéefar la nga ko fekkee loon jox naa la ko njukkali la ko loolu kay la ñu wax naa bala mu ko wax na fekk xeex bi jeex waaw na fekk xare bi jeex waaye xam nga bu ko teelee wax xëy na ab julit xir ci rey ab yéefar te bëgg a moom lam yéefar bi rek a tax ngir yàlla taxul loolu lañ ciy bañ nañu bañ kenn xeex jar ko jaay ba kanam te yàlla taxul ndax neen bu ne koy ab yéefar yaa moom la nga ko fekkeel kon ab jullit mën naa gis ab yéefar alal jam yor xamee na fi moom mu nangoo jaay bakkanam ngir rey ko ndax moom loolu loolu lañ ci bañ na moo tax ne kon bu fekkee nar naa wax loolu na bàyyi ba xare bi jeex mu door a wax loolu loolu sax mooy yàlla wala yakunu daalika qabla al qasmi warribaatu faandu fii nekk na ci moom fadlul nganeel kabiran luy aji rëy faandu baat wolof la mooy bunt ba nga xam ne fa la jullit ñu ragale yéefar yi songe leen fa nga dem fa taxaw sakk ko nga dem fa aar ko ba dara lu fa jàll si dara jullit ñi loolu mooy faandu loolu nee na nga ne lu réy réy ci nekk te wa dalika loolu bi qadri katrati xawfi ahli dalika taxari lépp bu dee ci naxwu benn laaf la dafa laafi baat yi dafa boole baat yi dafa wax ne loolu nekk na ci kenn barik ragalut ñun boobule bunt waaw bunt boobu wax mooy buntu ragal ba rek wa kasrati taxarrisihim ak bari seenu wattandiku min xamlihim ci seeni noonu dafa wax ne boo saxee ci bunt bi ragale woon musiba sàmm ko ba dara jàll ci war jullit ñi surtout yaa bët na réew ne na jullit ñi baree foofa ak na seen tiitaange toll woon te nga fekk ko ba dara laalu leen noonu rek la surtout yaa bare yooyu itam wala yow saa deful xare ji bi xëyri ibnil aboy ni ci lu ndigalal ñaari waajur su fekkee ne nag jihaar ji farlu kifaay rek la bu ñaan ñu demee mu doy su boobaa nee na bala ngaa dem na nga tàggu sa ndey ak sa baay ba ñu bàyyi la su fekkee dañoo jiyee sax kee bàyyi la kenn mënu la bàyyi sax faaw nga jéem waxante ka la bàyyiwut ba mu bàyyi la waaye doo sañ a dem te kenn ki sax bàyyiwu la illaa an yafuja am rek dafa bett alxadu noonu ya madinata xaw min dëkku aw nit wayoo wéeroo na tey ñu lokki lokki mooy attaqué alayhim ci ñoom kon fa fardoom farata lay doon alayhim ci ñoom dafuhum seenu jiñ wala yusta azanatu deful diisu al abawaani ñaari waajur fi misli haasa ci kem lii nee na kat bu fekkee ne yéefari ñoo song dëkku julit dëkk boobu ndaga mën nañoo delloo yéefari ci gannaaw ñoom day léegi xeex bi sopp ko na faratay jëmm mooy jëmm ju ne moo war a takku nag léegi ñu xeex ba delloo yéefari gannaaw bu fekkee ne ñoom waa dëkk bu doon tële nañ ca di ñu sës ñoom loolu daal nekk farata ci ñoom ñu ci jàppale waa dëkk boobu ba delloo yëfar yooyu gannaaw te yooyu jamono xare bi ñu la ko waxee farlu xam nin la faratay jëmm la nga xam ne jëlu diisu kenn des ci diis sa neeg sa bàyyi baabun li ab bunt la fil aymaani ci ngiñ yi wan nidéeri ak nisari yi li bëgg dugg nga ci mbirum giñ ak mbirum nisar nisar mooy loo xam ne waru la ci xeeti topp yàlla yi yow na nga warlu ko ci sa bopp loolu mooy nisar moo ngiñ nag la bëgg wax ci bunt bi wa man kaana ku nekk xaalifan di aji nam ma giñ fal yaxlif na giñ billaahi ci yàlla aw li yasmut wala mu noppi nee na ku bëgg a waat daal day waat ci yàlla wala aw melo ci melo yàlla yi waaye bu waat ci leneen wala mu tax mu teg ci wala mu noppi melo yàlla lii la du fasu su fekkee dafa waat nag ci lu mel ne yonante bi wala kaaba gi te nga xam daal lu ñu màggal la ci yoon te la mu waat doon dëgg boole ci ñu sukk rek yem ci bu fekkee daa waat ci yonante bi mbaa kaaba gi mbaa lu ñu màggal ci yoon te fekk la mu wax la mu waat amul nag xam ne ni amul mu waat na lu araam mooy la mu def lu araam la xam ne sax ñu koy jàppe kéefar ndax day mel ni kon day reetaan dafa yeb yonante bi mbaa kaaba gi mbaa loolee ndax la tax mu xam ne li waat tu dëgg ba noppi mu koy waat ci yooyu def na ko jàppe sax kéefar ba tey dañuy aaye day araam mu giñ ci lu mel ni bàyyam ndax yonante bi dañu woon inna allaha yanhaakum an taxlifu bi abaayikum mbaa da ngeen di aaye ngir waat ci seeni baay kon nag kenn du waat ci lu may yàlla mbaa ci turu yàlla rek kon loolu tam mat naa moytu fexe rek góorgóorlu boo dee bu fekkee mën lay ñàkk waat nga waat ci yàlla mbaa nga bàyyi wayu addu bu def na yar man koo xam ne xalafa giñ na bi talaaxin ci pase aw xataaxin wala ak gore wayal sama footeem koy war dafa wax ne nag ba tey dañ noo aaye waat ci fase si soxna wala waat ci goreelu jaam xam nga fase moom góor gi moom moom pase moom yàlla teg ci loxoom bu ko bëggee mën na koo def waaye nag mu waat ca dañ koy aaye goreel ba tey lu ñu sopp la ndax jaamu yàlla bu màgg la bari na tuyaa bu waaye taamu ku ko waat loolu nag ko jàng joofar rek tel na koo gis foofu xaat jëfër ne woon dañ caa wuute ñenn ñi boole nañ ko ci araam ci làmmiñ mooy waat ci pase wala barelu jaam ñenn ña araamal ko ñenn ñi wax ne aay ak araamal la su ko defee teg nañ sax ne koo xam da koy defa ko defaat bu ko defa xewit xewit moom daañu ko yar atikal dana ko yar ndax li ci ëpp koy def rek fasiq la maanaam kàccoor la day tuddoo lislaam waaye du tax mu sàmm andalitam wala lépp gisa nañ ko ci jooxar loolu nag moo ñëwaat fii bu tee nag lam waat ci fasi soxnaam mbaa gorelub jaamam buy tebbiku rek loola war ko lee mu wax nag ne wayel sama xootam koy war mooy bu fekkee ne waat na ne dana fasi soxnaam la waatam tebbiku ni ki mu waat ne tey moom du wax ak diw mii bu waxee moom soxnaam fasi na faroo ak kooka soxnaam fasi na kon parel gi noonu la fekkee daa waatoon ne tey tànkam du génn kër gi bu tànkam génnee kër gi ak jaamam gore na bu tànkam di génn kër gi ak jaamam boobu gore wala puniyaa te deetug settee wala puniyaa te deetug settee mooy insha allahu du ci am njëriñ bu waxan insha allahu it wax ko ci fase soxna sa mbaa gore jàmba it bu tee bu loola tebbi ko rek moom soxna sa fase bu dee jàmba jàmba gore jàmba gore waaye insha allahu bu soobu yàlla jëm ci wax du ci am njëriñ wala kafaaratu bi kafaara di war illaa fi yamini dara muy nekk ci ngiñ billahi ci yàlla xasa tedd na wa jàllate mu màgg aw ba seen wala ci dara min asmaayihi ci ay turam wa sifaati yi ak meloom nee na bu waatee ci yàlla rek wala tur wala melo ci tur yàlla yi mero yàlla yi rek te loola tebbiku foofu dong lay amee alamaan waaye leneen lu mën di waat bu la waxoon tebbiku du tax alamaan war ko ca du tax kenn wax ko alamaan bi alamaan bi moom danañ la ko leeralal bu demee bu war la noo koy defee wa man istisna koo xam ne settee na fala kafaarata di kafaara alayhi di ko war ida qasada ndem jublu na al istisna settee ga wa qaalate mu wax ne insha allahu ndem soob na yàlla wa wasalaha te mu jokk ko biyaminihi ci ngiyam qabla an yasmuta ci njëkk mi noppi nee na bu fekkee ba nga waatee teg nga ci insha allahu ndem soob na yàlla te kat insha allah waxoo ko rek ngir barkeeloo ko mbaa sool am na koo tàmm dangaa jublu boo wér ne li may waat kat bu soobee yàlla tax muy wax ndax léeg kenn wax ko te da koo tàmm rek mbaa da ko barkeeloo ci wax ci rek waaye teewul la mu wax moom dajaa dogu kooku moom du am njëriñ dajaa jow mu dogu ca te it mu sus ci waat gi bu waatee rek baatam daanu fi saasa mu tekk insha allah waaye bu waatee diir door wax insha allah dañuy jàpp ne kon dafa rëccu rek daa xam ne mënu ko rek mu daal di tekki insha allah dajaa jow mu sus ci moo tax mu tekki wa illaa ndéem sart yi xëttu na lam yenn fa lu ko jëriñ daalika loolu loolu ñu wax bu ci amul rek seetee gi insha allah du ci am njëriñ ah daañu ko may nag bu fekkee dafa tisli mbaa dafa saqat loolu laa xaajale incha allahu jëm nii la moom loolu léegi du am solo daañu ko jégal wal aymaanu ngiñ ya billahi ci yàlla arbaxatun ñeent la fa yami naa ni yaari ngiñ bu kaf faraayu def na leen kafaara nee na waat ci yàlla nag ñi mën nga koo jàppe ñeenti xaaj am na yaari waat yoo xam ne bu tebbi ko moom alamaan war la am na yaari waat yoo xam ne bu tebbi ko itam du tax alamaan war la waxoo moom ay yaxalifa mooy mu waat billaahi ci yàlla ne in faxaltu déet may def aw yaxalifa wala mu waat ne layef xalan na faaw mu def yaar yaa ngoog su waatee ci yàlla ne du ma def nangam su wëlbati ko def ko rek alamaan war ko ba ci topp nag mooy mu waat ci yàlla ne faaw mu def nangam bu defut loola it ba tey alamaan war ko kon daal jàppal ne du ma def mbaa danaa def moo ko waatee ci yàlla bu loola tebbi ko rek alamaan war la waaye mi naa ni yaari ngiñ laatu kafaraan defu leen kafaara am na yaar yoo xam ne bu tey bi koy du am alamaan ihdaahuma kenn ci ñoom ñaar yaxul yaminu mooy neenu ngiñ waxoo te moom an yaxalifa mooy waat xalaa shayin ci dara yazunnu wal da koo jort kazalika naka noonee fi yaqinihi ci wóoloon su ma yetta bay yana topp dana bir loxoo ñeel ko xilaafu foo loolu teg loolee falaa kafaara te kafaara xale di ko war wala isma te bakkaar benn bi mooy ñu wax neenu ngiñ neenu ngiñ mooy nga waat loo xam ne dangaa jàpp dangaa jàpp ne moom doo nga mën a am ñema loolu dañuy jàpp ne rek dara waru ci amoo ci bàkkaar ba wala ca tuubaa te fekk na booba yow na nga gisee kooka nam soloog nam mel lépp daal bàyyil nga jàpp ne moom dong la mën a doon mën laa jàpp ne leen mën naa nekk lu may loolu waaw wala mu doon seet lu réeram nga waatal ko ne ko gis naa ko ci moxa ci marché bi dem ñu koy jaay fekk na booba yow na nga gisee rek ak fekk ni nga xamee woon jëfu jëfu yooyu rek moo tax nga dogu ci ne mooma di yow dëgër bopp ba bëgg wax lu amul taxut waaye daal jàpp nga li nga gis moom moom la gannaaw ba nga ko nemmi koo nag topp topp ni ki daal mu rek waaye lu moom yëpp loo ci am bakkaar loo ci malamaan kooku mooy benn bi wal uxra ba ca des nag alxaalifu muy aji giñ mu ta am dal mbir mi muy aji tey lil kasi ñeel fen wa aw shakkan wala muy aji sikki sàkk fa huwa moom aasimun aji bàkkaaru la ba ca des nag mooy mu waat loo xam ne wóor na ko ne amut da ko waat rek waaye wóor na ko ne moom ñëw yàlla la waaye amut kooku moom réew na yaay boo xam ne dañ ko wax léegi alamaan waru ci waaye daa ëpp alamaan moom tuub rek bañ koo defati moo koy jagal waaye amul alamaan te bokk na ca kat mu waatal ne ko nangam danaa ko def te naru koo def loolu ci la bokk waaw waat ci yàlla ne nangam dana ko def te fekk ne lam def jàpp ci xolam mooy di ko def loolu ci yaram la bokk bi ci des nag mooy ba tey dañoo ànd sax ñu ñaar benn lañ mooy loo xam ne koy sikki sàkk rek wóoru ko sax daal di koy waat ci yàlla xaat xam nga loolu ñëw yàlla la te moom da koy sikki sàkk doon nga waru ko waru ko waat ci yàlla su ko waatee ci yàlla rek bakkaar bu rëy la boo xam ne alamaan sax jagalu ko mooy aw sàkkan ji wala tukaffiru du far daalika loolee al kafaaratu kafaara alamaan mun koo far wala yetub na tuub min daalika ci loolee ilallahi jëm ci yàlla subhaanahu solal naa ko lépp léelu ci moom wa taala te mu kawe na ko tuub tuub bu sell fas ci yéene bañ a dogoo fas ci yéene bañ a delloo te mu ko mukk wal kafaaratu kafaara nag fu ñu la koy waxee itxaamu xasharati masaakiina mooy leel fukki miskiin minal muslimiina ci jullit ñi al axraar ñu di ay gor mu doon mel ne mudd ni ko li miskiin ñeel bépp miskiin bi mudd nabi ci mudd yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nag boo waatee ba la nga waatoon tebbiku dañ wax ne alamaan war na la alamaan ñu dañ koy defee benn bi mooy leel fukki miskiin miskiin bi nga jox ko mudd mudd nag mën nga ko far jàppee ak liibar benn yoon rek wa ahabu li gën a sopp ilinaa jëm ci maalik an mooy boo xam ne law saada doon te yokkoon na alal mudd ca mudd ma misli sulus yi muddin kem ceerub mudd aw nisfa muddin wala genn wàllu mudd wa dalika te loolee bi xam ma ci kem li nga xam ne yokkoon dana nekk min wasati xaysihim ci digg doomu seen dund fii xalaayin ci teen teen mooy ceerub dund aw ruxsin wala yomb mooy yomb dund dafa wax ne maa yi nag moom ci fiqam dañuy sopp mooy joxe mudd yi nga may yem ci mudd dong joxe mudd ak ceer mudd wala joxe mudd ak genn wàllu mudd xamal nag ceer ak genn wàllu yemewuñ ceer gën a yomb mu ne loolu la ñuy seet rek bu fekkee ne yooyu jamono dund dafa jafe kon say booy joxe mudd ak ceeru mudd ndax moo gën a yomb bu fekkee yooyu jamono dund dafa yomb nag kon ñu taamu ñu sopp rek nga joxe mudd ak genn wàllu mudd bu say boo wax kon liibar ak genn wàllu liibar bu dee mudd ak ceer nag nga ne liibar ak ceeru liibar ceer na boo ko déggee mooy def ñoo def ñetti xaaj rek benn xaaj ba wa man axraj ku génne muddan mudd xalaa kulli xaalin ci mépp mbir aji sa amoo mu doy ko nee na nag boo dee joxe alamaan bi nga fexe ba joxe liibar rek yem ci seetoo ni waxtu woowa mun daa yem mbaa daa jafe laal mudd rek nga joxe yem ci muy liibar rek suba waay doy na sa jaan wàcc na waaye in kasaaxum ndéem nam na leen a sàng kasaaxum mu sàng leen li rajo li ñeel na góor xamee sun boobu wala li mar atti ñeel na jigéen xamee sun boobu wa ximaarun ak muuraay nee na ba tey bu la gënalee nga def alamaanu waddu fukki miskiin yi boo leen dee waddu kenn ku nekk da nga koy waddu lu mën a jullee ndax bu dee góor moom mudd rek doy na waaye bu dee jigéen faaw nga boole ci muuraay ndax bu dee julli day war a muuru aw xit ku raqamat ni wala goreelu jaam mu am nit mbéy jugam bu fekkee ci jamono jaam amee itam bu la neexee bàyyi yaar yee defar goreelu jaam waaye jaam ba lay nekk julit man nga ko goreel mu daal doon alamaanu su ngeen di tebbi ko fay na wéy jundéem amul zaalika loolee wala ay taxaaman bu caageenu lale fal yasum kon na woor talaafata ayaamin ñetti fan yu taabixun na yéda leen di toftale fayin farraqahu na dem teqali na leen aji sa am yett yoo moom bu la ca neex taamu waaye nag koor gi ñu lay wax moom moo ci mujj da ngay tëlee yow nag war koo def fekkee ne amoo mën a lale gi maanaam mën laa lale mën laa sàng miskin yi amoo jaam boo goreel ñu suñ jamono ji jaam amatut kon ngay woor ñetti fan ñetti fan ñu sopp nañu tegalee waaye boo ko teqalee woor tey ëllëg sa wóoroo xeex bu ñett yi mat rek ba tey bu baax wala mooy ñeel na ko ayu kafira mu kafaara xamal xiw fi ci njëkk teeñu ga teeñu mooy teggiku la waatan aw bax dafa wala ci gannaaw teeñu ga aw bax dal xiw fi waaye gannaaw teeñu ga axab bu mu gën a sopp ay naa jëm ci biir maalik li nga waat moom nee na bu la wóoreen day teggiku rek moom bu la neexee daal def alamaan bi fi saasa waaye na nga xaar ba mu teggiku bu wér nga war def alamaan lañ gën a taamu ci fiqu maalik man nazara ku nisar ay yuti xam topp allah yàlla fal yuti mu na ko topp ñu fi warlu lu baax loo xam ne warula woon yaa ko warlu mel ne nga warlu bis bu ne nga saraxe dara ni ki ab dërëm mbaa nangam mbaa nga warlu bis bu ne nga julli nangam rakka mbaa nga warlu bis bu ne nga jàng nangam ci alxuraan yépp lu baax la te warula loolu boo ko warloo rek mooy nisar wa man nasara ku nasar an yaasiya mu moy allah yàlla fala yaasi yi bu mu ko moy wala cheyte di dara xaalihi di ko war bu nisaree xeetu moy yàlla nag moom ni tuub nisar gam ko nisar yàlla aaye ko nag moom mu di ko warloo def ni tuub rek loola ci xolam te bañ a jege sax loole wa man nasara ku nisar sadaxata maa li xëyrihi saraxi alal yi ku dul moom aw xitqa xabdi xëyrihi wala goreel jàmb ku dul moom lam yal sam du ko war seen dara alli jaamur boo ko nisaree sarax wi du la war ndax moomoo ko jaamub jaamur boo ko nisaree goreel du la war ndax moomoo ko waaye soo nisaree bis boo ko moomee goreel ko moom bis boo ko moomee rek mu la lay war waman xaala ko wax ne in faxaltu ndem def naa kasa nangam faxale kon war na ma nafru kasa nisar nangam boo kasa ak nangam li sey ñeel dara yéen ko rufu wal du ko tudd min fi alil biru ci jëfi topp min salaatin ci julli aw sawmin wala koor aw xajj wala aj aw hurat wala humra aw sadaqa ci wala saraxi dara samaahu tudd na ko fa zalika kon loolee yel sa muhoo dana ko war in xanisa ndem teeñu na kama yel sa muhoo niki mu koy waree law nazarehu doonte nisaroon na ko mu jaral doon mbir mi luy rafleel min xëy réew mi ci wàllu géej nee na bu fekkee dafa nisaroon nisar boo xam ne da koo waat ne li may waat bu tebb koo nag nisar bee war ma waaw nit mu waat ne bis tey ji du ci jëw bis bu ci bu saa yu jëwee rek kon nisaral na yàlla saraxe téeméeri dërëm mbaa nisaral na yàlla julli ci guddi génn jëm téeméeri ràkka mbaa ñu sol na yàlla woor ci weer yi nangami fan yépp xam nga ne lu baax la moom nisar te teg ko ci kaw ngiñ su boobaa bu yàlla dogalee mu jëw ne woon bu jëw bu noppi jëw kon tebbi ko na su boobaa li mu wax daa koy wax bu dee saraxe ba saraxe ba war ko bu dee julli ga julli ga war ko bu dee koor ga koor ga war ko bu fekkoon aji baaxum la woon sax naka noonu la moom mu jekki jekki nisar ko ñoo yemoo kon nisar ga bu ko tegee ci ngiñ te ngiñ la tebbi ko it da koy daal di war mel ne bu nisaroon nisaru kese kese loolu mooy ati boobu foofu na xam nga ràññeel na li waat bu tebbikoo lam nisar lan lay doon ni ma ko misaale saraxe mbaa julli mbaa woor mbaa aj mbaa xumra yëpp ràññeel na ko wa in lam yusammi doom tudd li na fi yi ñeel nisaram nga maxrajan benn génnukaay minal amaali ci jëf yi fa xaale yi koy war na ko kafaaratu yaminin kafaara ngiñ su fekkee daa wax ne nag waat naa ci yàlla ne tey moom du ma jëw mukk ci saw làmmiñ teg ci ne su ma jëwee nisaral naa yàlla waaye foofu dong la yem waxul ne nisaral naa yàlla nangam ràññeel ko su yàlla dogalee mu jëw itam ñu tebbi ko na mu war a def alamaanu kusal ñu tebbi ko rek waaye génn nisar du ko war ndax ràññeelu toon leen lu baax dane woon rek nisaral naa yàlla yem ci te ràññeelut kon nag kafaar ngim gi rek moo koy war wa man nasara ku nisar maasiyatan ak mooy min qatli nafsin ci rey bakkan aw shurbi xamrin wala naan sàngara aw sib xii wala nawal moom aw maa wala loo xam ne lay sa pitaaxatin du ak topp wala maasiyatin te du ak mooy falaashe di dara xale yi di ko war wala yastaxfir na jégalu rek allah yàlla nee na nag bu nisaroo mooy nit mu nisara rey bakkan mbaa nisara naan sàngara mbaa sàcc alali jàmbur yu demee noonu kooku moom nee na day jégalu yàlla nisar ji nisar lu bon loolu lu yàlla aaye da koy jégalu ci xolam te bañ koo def su boobaa dara waru ko ca bu fekkee daa nisar nag loo xam ne bu topp du mooy nit daal di sura daw fii rek xelu ba jàkka ja te loolu bu ko defee dara du ko ci dal loolu kon lu dagan dong la waaw su boobaa kooku moom dara waru ko ca te mëtt jégalu itam ndax lu dagan moom amul bakkaar yaaree waa leewu weesu woon ci nisar rey bakkan baa yooyu mooy am jégalu boole ja te bañ koo def wayen xalafa ne waat na billahi ci yàlla ne layef xalan na faaw mu def maasiyatan ak mooy fal yu kafir na kafaara xan yomenihi walis ngiñam wala yaxalte bu mu def dalika loolee léegi nag bu waatee ci yàlla ne dana def mooy sàngam ne ki mu waat ci yàlla ne tey ji balaa jant bee sox na rey nit waaye tey ji balaa jant bee sox dana naan sàngara mbaa daal leneen lu araam kon day góorgóorlu bàyyi jant bi sox bañ a rey nit bañ a naan sàngara bañ a lu dara ba aay ba noppi nag jàpp ne la waatam tebb ko na mu daal di fay alamaan loolu moo ban wa in tajara andeem dëjërli na dëjërli muy dëgër bopp yu faalahu te mu def ko afima kon bakkaaru na wala kafaara tawaay dit kafaara xaalis di ko war li yomee nii ngir giñam su dëgëree bopp nag ne man lu ma wax def ko ñu wax mu ne moom lu wax rek def ko ba tax rey na nit ba naan na sàngara ma def na daal lu ay loolee su boobaa alamaan bu ko war ndax lu mu waxoon def na ko waaye gis nga ne bakkaar bi mu gàddu bàyyi woon diñam teggiku te def alamaan bi moo gënoon omoon xaala ko wax ne xale yi war na ma alhamdulilahi ko wëri yàlla wa muy faaquhu ak wëri yàlla fi yaminin ci ngiñ fa xani fa te mu teeñu fa xale yi kon war na ko kafaarataan ñaari alamaan dafa wax ne ko wàcc ahdullahi wàcc miifaaqullahi ñoo bokk noo ko fi xam nañu baat yi waaye nee na boo ko waatee ci ngiñ waat loo waajaloo ñaari baat nañu giñ ci xamidullahi giñ ci mifaaqullahi mu ñaari baat yi bokk maanaam mel na te bokkuñu te bokkuñu yàq soo ko waatee ci ngiñ gi la tey ko ñaari alamaan moo la war waaye loolu bu ko jàpp wax ji gën a waru mooy dañuy jàpp ne benn alamaan moo la ci war rek mu daal mu gën a war walay sax alaaman du war koo xam ne wakkada fadina alyamina ngi la fa kararaha te mu baam ko fi seen ci dara waaxidin lu lenn xayu kafaaratin dara kafaara waaxidatin di benn nee na bu fekkee li nga waat moom leen dong la waaye da nga ko baat ya nga ko waat da nga ko wax waxaat ko ki nga ne billahi billahi billahi tey du ma wax sama làmmiñ lu aay loolu leen rek nga waat mooy ñàkk wax sama làmmiñ lu aay baati ngi nag moom nga baamu rek wax ko ñetti yoon kooku nee na bu yàlla dogalee nga wax lu aay ci bis boobu it alamaan ne la waru ay benn lay doon bu wàññee billahi nga wax ñetti yoon tax ñu tegal ñetti alamaan déedéet aman xaala ku wax ne ashraktu bokkaaleel naa billahi ak yàlla aw huwa wala mu ne moom yahudiyun ab yahud la aw nasraniyun wala ab nasraan la in faala ndeem def na kaza nangam fala yel sa mufu du ko war ñu xayrul istixfaari lu dul sàkku jégal rek nee na ko wax ne man de nangam moom du ko def su ma ko defee rek ab yéefar laa mbaa su ma ko defee rek ab yahud laa mbaam nasraan laa ba noppi yëngati ko def loola nee na kon bu mu tax mu jàppee boppam ab yéefar mbaa ab yahud mbaa nasaraan na jégalu rek la mu waxan te doon lam doonoon doon julli ba doon julli ba doonoon rek kenn ko ci topp dara waaye na jégalu rek la mu waxan nee na mu ne tey de moom kenn mënta am ma wax ak diw daal di waat ni su waxee diw moom rek kon ab yéefar la mbaa yahud la mbaa nasaraan la wëlbatiku far wax ak moom su boobaa mu ngi ko tax a jàppee boppam yéefar mbaa yahud mbaa nasaraan ñu jéglu rek te bàyyi noonu kenn ko ci topp dara wa man xarama ku araamal xalaa nafsihi ci boppam cheyan dara mimmaa ci la nga xam ne axalla daganal na ko allahu yàlla lafa ñeel ko fala cheykun di dara xale yi di ko war nee na nag yi nga xam ne moom la yàlla daganal ci yow nga xam ne lew na la boo wëlbati ko araamal ko ci sa bopp du tax mu araam ci yow ndax daganal ak araamal moom yàllaa ko sañ yàllaa la boobu sañ-sañ kon du tax mu araam ci yow waaye nag illaa fii say jot yi dara ci soxnaam fa innaha naka soxna sa taxawu dana araam xale yi ci moom illaa ba àddi soo ji dara ci gannaaw jëkkër fas moom rek lañ ciy génne su soxna de moom boo ne araamal naa ko ci saa bopp day mel ne kon fase nga ko ñetti fase nga xam ne moom léegi faaw nga tàggoog moom ba jëriñ jëkkër yor ko ba bàyyi ko waaw nga door koo mën a takkaat waaye li fi jëkkër jaari fi mu araam la aman jaan la ku def maalahu alalam sadaxatan muy sarax aw xaddeen wala muy xaddiyu aji sa awoo kon doy ko sulusuhu ab sulusam ku wax ne man saa alal jëpp def naa ko sarax ngir yàlla mbaa def naa ko addiyu bëgg ko yóbbu ca fa ñu rendee addiyu ngir yàlla yëpp nee na soo ko defee ñetti xaaj joxe benn xaaj bi rek mu doy boo ko defee ñetti xaaj joxe benn ba rek mu doy nga da nga mën a téye ñaari ñi waaye wuti naa nag boo ne woon nangam day def naa ko ci yoonu yàlla ci sa alal kooku bu fekkoon ne moom doo ngay rek da nga ko ràññeel ne sama alal ji muy nangam def naa ko ci yoonu yàlla bu fekkee ne moom doo nga am du te nga war koo joxe waaye nag boo maasalee rek ne sama alal yëpp def naa ko ci yoonu yàlla moom boo ko defee ñetti xaaj boo joxe benn ba rek mu doy nga téye ñaar ñu des wa man xalafa ku waat bi naxri waladihi ci lot doomam muy rendi ko fa in fakkara ndew fàttaliku ne maqaama ibrahima xisab ibrahim ba daf daa kon mu xaddiyu xaddiyan am xaddiyu yudu bax moom def na ko rendi bi màkkate ci màkk mu tuj ci xóote dana ko doy chaatun ab gàtt koo xam ne daa waat ne ah li may waat de bu tebbi ko danaa rendi sama doom bu fekkee boobu xelam daa dem ci ba ibrahim di rendi ismail di ko jaamoo yàlla xam ne kon ren doom yi daal mi ne moom moom li ci jublu mooy jaamu yàlla ndax xelam ca loolu la dem loolu kon nee na bis bu ngiñ la tebbi ko dañ ko wax ne ko rayal am xaddiyu rayal am xaddiyu ca màkka jote ko sa doom ji na yàlla joxe woon am xar ismaila na yàlla joxe woon am xar ibrahima mu jote ko ismaila yëpp defal noonu yëpp am xaddiyu jote ko sa doom ji te dañu ren di sa doom ji wa in lam yadhkur dem fàttakul nag al maqaamu qisat ibrahim ba fala shay di dara xalih di ko war bu fekkee ne ba muy waat nag di tudd lay doomam de xelam dem ci jaamu nga ibrahim doon bëgg a jaamu doomam ji suñu borom loolu xelam demu ci xanaa rey rey rey doom ji dëgg la yéene woon am demee noonu xam nga kon ak mooy yàlla dong la di sër su boobaa kon bu ñu lëtee bi koy dara du ko ci war na jéglu rek bu ñu lëtee bi koy du tax addi moom war ko ndax di muy doonu jaamu yàlla ak mooy yàlla rek la jublu woon kon dara du ko ci war wa man xalafa ku waat bil machi ci dox ilaa màkkate jëm màkk fa xani fa temu teeñu teeñu mooy tebbiku fa xale yi kon war na ko almachi dox min mawdi xalifi yi bàyyi ko ci bérébu ngëñam la maanaam su fekkee dafa waat ne nangam duma ko def mbaa nangam danaa ko def tekki ne bu tey bi ko waral naa maanaam bu tey bi ko danaa dox ba dem màkka te xam nga dem màkka jaamu yàlla ndax boo fa demee da ngaaj mbaa nga umra kon nag nee na bu bu ñu la tey bi ko mu war a dox dem màkka ak tànkam machine na mooy dox ak tànk waaw day war a dox ak tànkam bu fekkee ne am na fu mu baaxoo doxe fa lay tàmbalee bu fekkee am na naka jëkk tàmbalee fa dox moom foofu lay yéen waaye bu fekkee tàmbali foofu lay tàmbalee maanaam daal mu baamu ko bu fekkee af yéene woon a tàmbalee dox bi kon foofu lay tàmbalee dox wuti màkka bu fekkee amu ko woon nag kon fañ aada woo tàmbale dox bi na tàmbalee foofu fal yam si na dox nag insha ndem soog na ko fi xajjin ci aj aw xuurat wala xumra mu ne boobaa nag bu ko neexee bu demee aj bu ko neexee bu demee xumra ni ngam yéen wutoon lenn ci ràññeel kon su demee lu ko bu neex def fa in xaja fa ndem tëli na xan yi machine yi ci doxu tànkam fàtt ba mu war sama la joxu topp dana dellu saaniyatam yoonu ñaareel in qadara ndem attan na ko fayam si tamit dox amaakin rukoo bi béréb bi waram nga nee na bu fekkee daa tàmbali woon a dem ci yoon wi dox ak tànkam ba yàgg mu far tële mënta doxati kon mën naa bëgg mbaa mu war ab yow dem su demee ba ñibbisiwaat nag te mën a delluwaat nag kon mu fexee delluwaat bu dee delluwaat nag kon lam duggoon ci yoon bu njëkk woon ñu tële moom lay jéem a dox ak tànkam nag ci yoon ñaareel wi fay na xalima dem xam na ne annahu nag moom laa yaqdul du ko mën xaxada kon mu jekki wa axdaate mu xaddiya bu fekkee xam na ne bu delloo woon ñaareel tam du mën a dox la mu njëkk na war a ci yoonu njëkk wu mbaa la mu njëkk na bugg avion ci yoonu njëkk wu kon say woon far toog te defum addi rek mu wecci dellu gi waxaala wax ne sax xataawum sëriñ mi ngi wax xataawu ne laa yor jëfu du dellu faani yatan yoonu ñaareel wa in qadara ak doonte attan na ko wayu si ufa dana ko doy rek alxaddiyu addiyu xataaw gëstukat la moom day wax ne bu xasee dem ba ci yoon mu tële ci yoonu njëkk wa bu ñu bisee du jar muy delluwaat bu defee addi rek mu doy donte xam na ne bu delloo itam day mën a dox lam njëkk la war a ci yoonu njëkk wa it dellu ji mu waru ko waaye taxul na ñu ànd ak moom wax yi ñu ko wax rek moom lañu sukkandikoo su ma ne dellu moom day dellu te lam njëkk na war ci yoonu njëkk wa mu dox ko wa illaa kaana ndem nekk na sorooratan di ko mësta aj jaala kon mu def daalika loolee fii xumratin ci ak xumra nga xam ne fa ita taafa ne war na wa saxaa te mu dox safa ak marwa wa qasara te mu jàmp ahrama mu armal min màkkate ci màkka bi faridatin ci aju farata wa kaana te mu nekk mu tamatti xandi aju def tamattu nee na bu fekkee ne moom mi waatan ci dox dem màkka te mu bëti ko faram ngir la tebbi ko wala wala war ko daa nekk koo xam ne mu saaj benn yoon kon li gën mooy bu dikkee rek mu def tamattu xumra wëlbati ko aj mooy day yéene xumra kese xumra nag moom xam nga ne mooy dangay armal wëlbati ko war kaaba wëlbati ko dox Safa ak Marwa daal di watu tey nag moom néew la watu jàmp la la wax danga leeral wax mu lu tax mu wax la jàmp te néew la watu waaw nga xam ne moom soo watoo rek mu daal di jeex bu kii itam bu arm bu jàmpoo rek mu daal di jeex bu armal bi àggee nag wëlbati ko nag léegi armal aj xam def nga yaar yëpp xumra nga aj nga te loolu nag mooy tamattu xumra ba mu jeex nga wëlbati ko aj loolu moo tudd tamattu waxam ne sart yi tax boo ko defee nag almaan war la ci waxam nañ ko ci foofu ci buntu aj wal xilaaqu watu fi xëyri haza ci lu dul lii afdalu moo gën lu tax na mu ne waxa sarate mu jàmp loolu lay leeral nee na bu fekkoon doon lu demee nii moom watoo gën waaye fii moom jàmpoo gën ndax wa innama yustahabu naka def na sopp la wàññeel ko ak taqsiru jàmp fii hada ci lii istibqa an ngir sàkkoo desal ñu caxa fi ñeel ay ñagg-ñagg maanaam ñeel ay desiti kawar fii xaj ci ay ga li tax ñu wax ne na jempal te bañ a wattu mooy xam nga moom daa fas yéene bu xumra gi jeexee mu wëlbati ko armal aj te xam nga bu demee ba ci aj ga itam aj gi day am wattu léegi na xam nga ne kon umra yu jiitu bu fekkee wattu na ci ba set bu àggee ci aj ga am nen lay doon nga xam da ci jaal da ci jaale rek rusuwaal bi moom wattukaay bi waaye du am lu wat kon nag li mu wax rek umra gi nga xam ne mooy jiitu moom da ciy jàmp rek su ko defee nag bu àggee ba ci àgg nag fekk bu daal di am am lu wat daal li mën wat ko bëgg affaire mu tax mu tudd leen fee jàmp woon waman nazara ku nisar masiyan doxog tànk ilal madinati jëm madina aw ila baytul maqdis wala jëm ci baytul maqdis ataaxuma kon mu dikkal leen ñoom ñaar raakiban bi mu mu aji war inna waa ndéem yéene na asalaatu julli ga bi masjiday ximaa ci seen ñaari jàkka wa illaa ndéem yéene wata julli ci seen ñaari jàkka fala fii di dara xale di ko war nee na boo ni soree maanaam boo warlulee yàlla doxu fi tànk ba dem madina wala doxu fi tànk ba dem baytul maqdis su fekkee da nga caa boole yéene boo demee julli ci jàkkay madina ja wala ci jàkkay baytul maqdis ja waaw su boobaa kon sa nisar ba war nga koo def kon war ngaa jël sa tànk dox dem ba madina julli fa julli ba nga julli fa julli ba nga yéene woon moo xam farata la moo xam nafi la bu dee baytul maqdis ba tey noonu bu fekkee doxu kese bi nga nisar na waaye yéene woo boo demee julli ca seen yaari jàkka la yéene woo ca julli fa doxu kese bi la kon moom jërë ngay dem ndax doxu kese bi du jaamu yàlla mu faral bi wax naa li anna mujarradal mashi li xëyri makkata laysa bi ibadatin fala yéen sama nabar boobu nee na fi rek kese rek dox dem waaye yéen wuta julli ci yaari jàkka yi ñu ca Madina ñu ca Baytul Maqdis kon du jara dem ndax julli gaa tax ñu dem wa ama xayru haadihi talaafati masaajida ndaal lu dul yila yetti jàkka fala yatiha di leen dikkal maashiyan mbir mu muy aji dox wala raakiban du caagee ma mbir mu muy aji war li salaat ngir julli navaraha boo xam ne ni soloon na ko wala ñu solli na julli rek bi mal di ci bérébam ba neena bu fekkee jàkk ja nga doon nisar dafa sa tànk ba dem fa julli fa du jàkk yi màkka du jàkk yi madina du jàkk yi baytul maqdis yeneen jàkk la nekk jàkk ji ci ndar rek waaye ji ci ndakaaru rek su boobaa kon nee na du jar nga ciy dem jëlu ngay dox jëlu ngay war jëlu ngay dugg ajowo lim ba nga nisaroon julli boo dee ba ci jàkk jooju rek far ko julli fii nga nekk nekk bi nisaroon ndox ba ci jàkka ji ci ndar mbaa dugg ba ca jàkka ji ndar mu julli fa téeméeri ràkk loolu nisar su boobaa dañ ko wax ne ko julli fa téeméeri ràkk jëlu dem dara ci genn wet jër te dox jër te war jër te dugg avion mën na dara ko nisar ribaatan faandu bi ma bixin ci ab birab mi nag saxoori ci bunti ragal yi fa daalika loolee xale yi war na ko ay yàtti yaxoo mu dikki ko faandu waxoon nañ la ko ne lu bari tuyaaba la mooy buntu bi ñu ragal pelente songe nga taxaw fa aar ko ba dara du jàll war leen loolu nag nee na kon ku ko nisar xam nga ne aw yoon ku ko nisar war koo àggale mu daal ne ko la war baab li ab bunt la fi nikaax yi ci sëy ñu koy wax takk soxna wa talaax ak pase wa rajxati ak fay wi wa zihaari ak zihaar zihaar moom fi ngeen ko dara ci wolof waaye daañu la ko wax buñ ci àggee wal ilaay ak diiñ waaw zihaari ak zihaar zihaar moom fi daañu ko dara ci wolof waaye daañu la ko wax buñ ci àggee wal ilaay ak giñ daañu la wax lan mooy giñ googu ndax bokk te giñ yi nga weesu woon ne am na wuute wal lixaani ak rabonte daañu wax lu ne boo wal xol yi ak summi ko daañu wax lu summi ko wal rabaaxi ak nampaale daañu wax it luy nampaale wala nikaax bu tub sëy illaa bi wali yu bari ci kilifa wa sadaaxin akub kenn wa shaahiday xadrin ak ñaari séeray maando sëy ci islam moom daa am ay sart faaw dana am kilifa maanaam ka war a may jigéen ji maye ko loola kooku mooy kilifa ba du ca mën a ñàkk ak can can mooy alali sëy ji moom itam mënu cee ñàkk bu ko defee itam béréb ba nga xam ne bu fa seesee bi fa lay dal muy jëkkër ja ak jabar ja ñooy ñaar ba tey am na luñ ci war a wax li cay des nag mooy waxin ñu waxin ba nga xam ne kii may nañ ko kii ndax ki ñaan jabar day wax ne ñaan naa jabar ka ko war a may ne ko may naa la jabar loolu nag moo ci am solo ndax xutba bi ñu def ak bu ko garab yi joxe yëpp moom xutba bi dañ koo sopp rek waaye mën naa ñàkk ki nga xam ne mooy ñaan moom bu ñaanee ki koy may may ko rek sëñ bi daal ne fasu kon ñaari seere yi maan itam nag ak sart la ca maanaam ci buñ dee mayee sax seere yi maan mën mën na faa bañ a teew waaye dana aajoo kon balaa jëkkër jeeg jabar jee jote ñu seere yi ñu sàkk seere yi seere mel ni que diw yi nañ ko diw xam ne wax naa fa in la mushki daan dem sàkk ñu ay seere fi xaq bi ca fas ga fas ga mooy maye ga fala yóbbu nii kon du wet moom jëkkër ji bi ak jabar ja xataa mushki daan ba te ñu sàkk ay seere maanaam mën nañ koo maye ni ki kilifa gi maye ak ka koy ñaan rek ñu teew fa tey bañ a sàkk benn seere waaye kon nañ fexee balaa jëkkër ji ak kañ kañ ko may muy soxna sa wala ñuy jote rek waaw léegi dañu sàkk ay seere yu maanu ñu seere ne diw may nañ ko diw dama wax ne nag léegi seere yu maanu matali sart daa xaw a joxe kon li gën rek mooy ñu joxe bu dajale mbooloo mu bari fexe bu dajale mbooloo mu bari daal ñu seere ko daal moo gën loolu moo tax ñu koy taamoo defee ci jàkk yi fi waxtu woo xam ne mbooloo mu bari na ko defee ñu fa nekk ñëpp teeye ko wa aqamu sadaqi bin jaanee can rubxu dinaarin mooy kaaru dinaar maanaam bu dee fukk maal yi moom day am bin jaanee can loo xam ni moom bu ko manqué du bay loolu nag moom lañ tollale kaaru dinaar mbaa ñett doomi xaalis wala ba mu bayoo ci ci bu fekkee leneen la loolu sa xaalisam bu ko seet ci yoloor na mat kaaru dinaar wala ñett doomi yoon
maanaam boromu yoon nag boo dee seet ab diisaayam ci ay ngaraam dana war a diise ne deux virgule deux boo defee deux teg ca virgule danga cee teg neuf cent soixante quinze loolu mooy diisaayu benn dërëmu yoon bu fekkee def nga ko ñetti yoon nag muy ngir mu ñett dërëm nag dana war a nekk huit virgule neuf cent vingt cinq bi mu jaax bi mu mujjee xayma nag ba xam li nga waxoon ne mooy diisaayu benn dërëmu yoon te mooy deux virgule neuf cent soixante quinze dañ ko mujjee seet ci xaalis bi nga xam ne mooy xaalisu waa réew mi mu ngi toll woon ci deux mille cinq cent cinquante kon deux mille cinq cent cinquante moo tolloog benn dërëmu yoon ci sunu xaalis bii boo ko defee ba mu ñetti yoon nag mu daal nekk sept mille six cent cinquante kon 7650 bi ñu dajee seetlu daal moom lañ jàpp ne moom moo tolloog ñetti dërëmi yoon ba tey nag bu fàtte ne dinaar bi nga waxoon ne kaaru dinaar mooy doon gën gaa néew yi kenn benn dinaar moom dañ koy jàppee ñeenti ngaraam yu tegal kaaru ngaraam waaw ñeenti ngaraam yu tegal kaaru ngaraam nag bu fekkee da ngaa wax nag kaaru dinaar kon kaaru dinaar day tolloog benn ngaraam boo xam ne day da nga cay dolli benn ngaraam boo xaaj ñeenti xaaj benn xaaj ba maanaam boo jëlee benn ngaraam mat jël benn ngaraam nag toj ko ñeenti toj yem képp nga jël benn tojit ba boole ko benn ngaraam boobee waaw su boobaa loolu kon moo war a tolloonteeg kaaru dinaar ba tey nag bu gënee yomb ci yow boo bëggee tudd kaaru dinaar ci ni ko tubaab yi waxee mën ngaa wax ne un virgule zéro six cent vingt cinq loolu ba tey mën nga ne mooy taaru dinaar loolu nga wax ne mooy taaru dinaar nag kon boo ko multiplier quatre moo lay jox kon benn dinaar ci ni ko yoon jàppe nga xam ne loolu boo ko multiplier quatre da lay jox quatre virgule vingt cinq kon jàppal ne benn dinaar ci wurus ci nañ ko jàppee ci yoonu lislaam mooy ñeenti ngaraam ak taaru ngaraam waaw su ko defee nag ñeenti ngaraam ak taaru ngaraam nag boo bëggee xam nisaabu wurus loolu kon da nga koy def ba muy ñaar fukki yoon bu ko defee ba muy ñaar fukki yoon nag mu jox la quatre-vingt-cinq ngaraam kon quatre-vingt-cinq ngaraam defe naa wax nañ ko ci gannaaw mooy nisaabu wurus ci war a génne asaka
wal abi ñeel na bàyyi in ka xukmati sëyu loo doomu bu jigéenam al bikri ka di applique bi xëyri isniha ci luñu ndigalam dafa ne nag yow mi nga xam ne yaa jur sa doom moom tamit koo xam ne mu ngeeku ndawam ba tey njëkkawul jeeg mën ngaa jékki-jékki maye ko te du sañ a bañ moo ko ci diisu te du sañ a bañ nga jékki-jékki rek wutee ko jëkkër loolu sañ nga ko wa in balaxat ak doon te kàllafe na donte magum jëmm la mu kàllaf itam waaye moom ba tey mi ngi ak ndawam ñëggagul jeeg ni ki mëstu sëy may noonu jeeg kon bu la neexee maye ko donte kàllaf na te da nga sañ a bañ wa insha dem soog na ko nag shawaraha mu diisu ko bu la soobee nag nga diisoo caag moom ne ko dama laa bëgg may diw waxtaan caag mu may ndimoo ci loolu mel na ne mu gën waa maa xoolul abi daal ku dul bàyyi fii burti ci ab xiig war si ñun moo xam ku ñu dénk la ko aw xëy dama wala ku dul moom fala yu sayu juha bu ko mën a maye la neexee bu ko mën a séyiloo xataa tab loo xam ba te mu kàllafee wa ta vana te mu digle mooy digle mooy wax ne nangu naa nee na bu fekkee ne kooku xiig la maanaam daal gone la lu jeeg waaye yow doo bàyyam nag gone la ko dénkoon rek nga yor ko mbaa da ngay càmmiñam ngeen bokk ndey bàyyi mbaa bàyyi mbaa da ngay bàyyi bu ndaw rek waaye yow daal ci dëgg-dëgg jëloo ko doo bàyyam kooku moom nee na bu dee gone doo ko mën a mayee lu may daa dem bay mu kàllaf ah daa dem bay mag ah day yoon day dem ba nekk mu kàllafa maanaam day dem ba nekk mag ci yoon ba ma jotoon nga laaj ko ba mu nangu waaw ni ma sañu jékki-jékki forcé ko doo ko mën a mayee te kàllafee bu kàllafee it doo mën a jékki-jékki mayee ko te laajoo ko ba mu nangu wa ibnuha ndigalam nag sumaatu xaa mooy ak noppeem dañuy jàpp ne nag moom xëy na mu am kersak boo ne ko diw laa la bëgg a may ndax bëgg nga ko mu ne waaw ju réer kon nag boo ko waxee noonu rek te waxul dara mu ne pat soo boo jàpp ne kooko bëgg na ko lu may nag muy réeree joo xam ne xam nga ne day reetaane loolu xaw ma noo ko waxee ndax yi dama noonu fekkee ne gis nga mandarga mu wane ne noppi gi moom noppi gànd la soo boo bàyyi wala ñu sañu jibu sañu sañu loo ak fayu ba jeeg ba abam bàyyi wala xëy dama du caa gën a kubu bàyyi illaa bi ridaha ndara ci ngërëmam wa ta'dana te mu digle it bil xawli ci wax boo xam ne jeeg la nekkatul gone kooku moom nee na dagam jeeg la xam daa sëy yoon ba del si xanaa daal bon nga mu doon jeeg moom ñu ko jëlee ci anam bu wér ñu ki sëy bu wér kooku moom nee na donte yaa ko tudd di bàyyam dëgg-dëgg sax moo ngay càmmañam mbaa ngay bàyyam ndaw ñoo ci yam ndax sañu jékki-jékki forcé ko di ko maye kon ko maye da nga koy laaj ba mu nangu te kat moom tey noppi dong du ci doy day aajo mu wax muy wata vena bil xawli am nangam moom da koy wax waaye noppi rek du ci doy wala tunkahu defu takk almar ab jigéen illaa bi ibni waliyiha ndara ci ndigal kilifaam aw jur ra'yi wala borom pexe min ahliha ci yoon ka rajuli mel ne góor min xashiratiha gu bokk ci giram ay sultaani wala atekatu jullit ma dafa wax ne kilifa gi maye moom mënta ñàkk ci sëy bu islam sëy bu islam moom faaw mu am kilifa goo xam ne moo war a maye kon jigéen bala nga ko mën a takk faaw kilifa am nga la ko war a may dala koy may wala boog koo xam ne bu kilifa gu jege ga sax waaye bokk na ci ñu war a maye nit bu la ko bàyyi bu ndaw mayee te fekk mbokkam mbokkam day bàyyi nekk bi lu faal di am fii ci réew mi ndax ni fonki jiw ba su boobaa it baax na. bu fekkee ne seet na ne amul kenn ci gànnaaw yi ko war a maye kon attaka jullit bi moo koy maye attaka jullit ba moo koy maye waaye faaw rek mu am kilifa mënu cee ñàkk waxa def tali fa wuteef na fi dañuy ëtt ci aju suufi daraja an tuwalliya mu féetale boppam aju na bi yan jaamur bu góor daniya aju suufi daraja mooy jigéen joo xam ne ñu bari tàmmoon ko ndax gisuñu ci moom alal mbaa taar mbaa judd bu ñuy xemem kooku na xam nga ne kon suufi dara jàngoog ndax daga moom du alal gi ñu xëy moom ci moom bu taar bu judd moom di daal di xaw a doy waar kooku nag mu fekk du mu nekk mbokk bi moo xam ne ab jaamu rek la ci moom islam lépp leen boole moo ko féete naa la sa féete naa la saa bopp nga maye ma te fekk na moom mbokkam ma ko war a maye nga fa loolu lay wax loolu wax ne wute nañ ci ndax mën naa nekk wala mënta nekk wax ji gën a wóor mooy yërt song def ko waaye bu xasee song ba def ko moom ñu bàyyi ko ca waaye moom moo wax ji gën a wóor moom la bi wax naa wal mu'tamadu sixatul xaqdi bi ajnabiyin maxa wujudil xaribi waaye maxal karaahati waaw lu ma la war moom mooy donte amoon na mbokk mu ko jege mu ko war a maye mu dem ci jaamur ab jaamur maye ko xas na ko maye soo boo ñu bàyyi may ko wóor loolu la wax lañu sukkandikoo ànd nag def la ñuy sib wal ibnu doom bu góor aw la moo gën a yow mënal abi ci bàyyi maanaam jigéen ji war a maye bu fekkee bàyyam dëgg ngi fi waaye doom ju góoram ju mat kilifa ngi fi kon doom ju góoram ju mat kilifa fi mu toll mooy jiitu maamam ju góor joojee bu ma nee maamam ju góoram mooy bàyyi jigéen ji kon doom ju góor ji moom moo amee sañ-sañu maye yaayam donte maamam ju góor nga wooye ka jur ka jur yaayam jooju it moom doom ju góor dama mat na kilifa rek mais sax donte daa suufe ni ki ëpp sat la sax ba tee mu gën a am sañ-sañu maye wal abi baay itam ala moo gën a yeew minal axi ci mbokk mu góor su fekkee jigéen ji ñu war a maye bàyyam dëgg dëgg ñëwee am na it ay mbokk maanaam mu mbokk mu góor yi mbokkal ndey ak baay kenn wala mu ko it wala ñu mbokkal baay dong ne ko mbokkal ndey dong moom bokkut kooku nee na moom bàyyi war a maye ndax xam nga bàyyi li mbooloo jiw ñoom ñëpp bàyyi moom ñooy jàll moo gën a jege ñun kon kilifa yi ci wàllu sëy ñii lañ tegaloo nga jàng ko benn benn doom ju góor moo jiitu maanaam jigéen ci war a maye bu fekkee doom ju góor a mu ngi fi dimagum jëm maanaam di mukallaf moo xam ne mën naa maye maanaam matale na sart kilifa kon doom ju góoram jooju mooy maye bu doom ju góor jàllee sët bu góor a ci topp sët bu góor boo xam ne daa bàyyikoo ci doom ju góor waaw sët bu góor bu bàyyikoo ci doom ju góor moo ci topp moo war a maye maam ju jigéenam bu jàllee na nga door ca teg bàyyi su bàyyi jàllee nga teg ci mbokk mu góor mi nga xam ne moo bokk ak moom jigéen ji ndey ak baay su jàllee nga teg ci mbokk mu góor mi nga xam ne moo bokk ak moom baay dong su fekkee weesu nga mbokk ñu bokk ak moom ndey ak baay ak mi nga xam ne moo bokk ak moom baay nga cay teg seeni doom seen doom yi noonu la ñuy sosaloo ni nga tegalee yaaree nga xam ne ngaa jiital mbokk mu góor mu bokk ak moom ndey ak baay ba tey doom mooy jiitu kee door caa topp. su fekkee ne mbokk yi jeex nañ nag nga doon ca teg maamu góor maamu góor foofu lay sës mbokk ak doy mbokk ñoo jiitu maamu góor su maamu góor jàllee nga teg ci baay bu ndaw baay bu ndaw da ngay jiital baay bu ndaw bi nga xam ne moom baayu jigéen ji ñoo bokk ndey ak baay dool caa teg baay bu ndaw bi nga xam ne moo bokk ak baayu jigéen ji baay doom su ñooñu jàllee nga teg ca bu fekkee kuñ goree loon nga teg ca ka ko goree loon ka ko goree loon moo war a sës foofu. su kooku jàllee nga teg ci ka ko yaroon bu fekkee ne am na ku ko yaroon yore woon ko yar ko dina wut nag ci diir ba mu ko war a yore yar ko ba tax mu war a nekk kilifa am na ñu wax ni faaw daa war a mat fukki at am ñu ne déedéet daa war a mën ñeent am ñu ne bu ko yoree diir boo xam ne rek mën na ko faa ñëwante toppatoo ko fa rek ñu daal di xam ne kon yar na mu daal di yeyoo sañ a maye mu daal di yeyoo kilifa maye daal bu ñooñu jàllee nag. ka ci war a sës mooy àttekat bi bu fekkee ne àttekat bi am na te nga xam ne mooy àtte mbir yooyu kon kooku moom la ñuy dem moom mooy maye su fekkee àttekat bi amul nag kon mbooloom jullit ñi rek ñooy tase seet koo xam ne doyloo nañ ko ne ko mayal jigéen ji mu maye ko kon kilifa yi ci wàllu sëy noonu lañ tegaloo.
amoon xarala ku jege mu naan xasabati ci keneen wax ak xaq moo gën a yeyoo maanaam ngeen bàyyi gi koo ci xam ne yaa gën a jege rek. yaa gën a yeyoo maye jigéen ji ndax islam moom daa fonk wàllu yaay daa wuteeg aada wolof aada wolof moom daa fonk wàllu yaay lu bari ci sëy yi nijaay wala doomu ndey ñoo koy fas ñoo koy tas ñoo koy fas ñoo koy tas loolu nag ñoom la bu dee ci lislaam moom wàllu bàyyi rek moo yore mbir ma wa in zawa jaxaa neem sëyloo na ko mooy ne maye na ko ak bàyyi rek kilifa bu sori ma daa kon way zalika loole bu amee kilifa bu jege bu war a maye mel ni mbokkam bàyyi mu ndaw nag moo ko sori ko jëkk maye ko waxoon naa ko léegi su boobaa loolu moom dara nekk ci mën nañ ko bàyyi mooy wala les yi ñeel na ka ñu dénk ayu zawija mu takkal soxna ak tufla xale bu góor wa fii wilaayati yi ci kilifteefam nga nee na bu ñu la dénkee xale bu góor nga yore mbiram nag ah bu la neexee jékki-jékki takkal ko soxna la mu doon doon gone nga xam ne kàlla foofu moom xale bu góor bi waa defee ne takkal nga soxna moo gën loolu baax na sañ nga ko wala yu sañu waaye du sañu sañu loo azahira te xale bu jigéen ba illaa an yamarahu dara dara koy digal al abu baay ba bi inkaahiha ci sëy loom waaye nee na bu la dénkan xale bu jigéen moom nga yore ko ca ngone ga nga xam ne kaalifeewut doo mën a jékki-jékki maye ko xanaa bu la bàyyam ne may ko jëkkër kon te danga ko sañ a forcé ci kaw la la bàyyi wax waaye bu fekkee la bàyyi waxoo ci daal moom dénk lu dénkoon ca la yam bala nga ko mën a maye daa kaalife te dañ koy xewoon tam da nga koy diisu njëkk ba mu nangu waaye doo ko mën a forcé bu bàyyam ne forcé ko nag moom nga topp digalu bàyyam wala sa bayul arxaami di réeram jegeñaale ndey yi minal awliya yi ñuy bokk ci kilifa ya wala awliya yi kilifa ya daal mooy xasabat yi ñu bokk ci gayu bàyyi ka naa ko wax léegi wala ndey gi moom kilifa gi yaram yëpp sëy bu bokk ci wàllu yaay gi faaw rek ci wàllu bàyyi gi lay bokk gayu bàyyi gi lay bokk yaxtubu bu labat ahadun kenn tupp biti aw labatub bokkam labat mooy wut soxna te wax ne bu fekkee ne sa mbokk sa mbokk dugg ci ko jokkal deret sa mbokk mu julli rek la tax muy wax bu ko si dugg fenn di fa bëgg soxna yow mu wax jamaale yow itam nga bëgg ci di ci wax doo ko sañ wala yu soo te du waxaale it xanaa soo bi ci kaw waxaaleem bu sa mbokk dee waxaale itam doo sañ a dugg ca bu waxaale it bëggal sa bopp ngay bàyyi nga xam bu jëlit yow nga door a dugg nag wa dalika loolu ida rakkanaa mooy ndeem jàngante nañ ci wax wa taqaraba te jegante ci jëf nee na muy jamaale gi muy waxaale ci kaw waxaale lu mu ci mën doon bu dee ci njëlbeen nga du aay maanaam bu demee ba sori ci nag nga xam ne léegi moom benn rek ñu juboo mbaa ñàkk juboo yooyu jamono moom lay lay aay nga dugg ca bu dee jamaale ga wala bu dee njaay ma yow ngay bàyyi rek su su jëlu yow nga door a dugg waaye fu jigéen nekk tamit sëy rek am na fay ñëw am na ko ci wax waaye xëy na wax ji soriwut yow itam bu la neexee wax bu dee njaay moo xam ne kii ak sit laaj ba xam ne jar yooyu di wax na melo yooyu ba tey bu la neexee def ne moom xool wax ndax kooku soriwul ci waxaale wax ci xasi sori rek moom yow sañu duggati lu may benn daa bàyyi jënd na nga doon dugg yow bu dee soxna si bu bàyyi nag takkatu nga doon dugg wala yow bi su du dagan nikaahu shuhaari sayib shuhaar waxoo moom shuhaar al bubuxu moo di jaay pay bil bubuxi jënde pay araam sayib shuhaar bokk na ci araam sayib shuhaar nag mooy wecce ay soxna wecce ay jigéen rek daal ci gàttal wecce ay jigéen nga xam ne dañu wax ne ki dalay may soxna nga may ko soxna waaye bu lee amul lee du am nga xam ne moom dañoo takk amulee ci amulee kon sayib shuhaar neel mooy kee may soxna kee kee may soxna kee waaye dañ ko sartante ne bu lee amut lee du am la sax kii may soxna ba yàgg kee mu kee bëtug may ko soxna moo xam seen doom la kenn ku nekk daa may doom ji maamam wala seen jigéen ni ki seen rakk mbaa seen mag yëpp moom bu fekkee kenn may kee ba noppi kee may kee rek waaye bu ñu sartante ne bu lee amut lee du am waaw kooku du aay
waaw bu ñu xasee sartante nag ne su ko mayul kii moom itam du ko may kii moom gannaaw ba bu fekkee kenn ku ne joxe na can ca kañ la may it du ko tax a baax nga xam ne kon day def ay xaaj léeg-léeg ñoom ñaari jigéen ñi kenn ku ne ñu joxe la can léeg-léeg ñu joxe kenn ka can bàyyi moroom ma léeg-léeg joxe ñu joxe luñu can kenn ci ñoom ñaar waaye lu mu ci mën doon moom benn du ca baax daañu ko mën a leeral nag ci téere yi ci topp ni ñu koy teqalee.
dañu kaawoon di caagee mu sëy di xëy bi sadaaxin ci luñu can ba tey bokk na ci sëy yi araam sëy boo xam ne ñu wax ne can du ci am mooy dañuy farat ne te ñu may soxna du ci joxe alal du ci joxe alal yi sëy dama waxoon ne am na gën jaa néew can goo xam ne lu néew néew ñu war koo joxe kon nag buy fartee loolu sax du ko joxe waaw su boobaa kon sëy bi yàqu wala nikaaxu mu taxati du ci ay yenn sëy bi yóbbal waxoo te moom ak nikaaxu mooy takk ilaa jëlin jëm ci àpp sëy bi yóbbal nañ koy aaye mooy takk mooy takk ko ba àpp sàngam ngeen tàggoo mooy sëy bi wutal àpp moo xam àpp balaa jege moo xam àpp balaa sori lu ci mën doon dañ koy aay dañoo bëgg rek ñu fas te bàyyi yàlla bu ko yàlla dindee ci faatu wala ci ñu tàggoo baax na waaye kenn du ko wutal àpp wala nikaaxu di jaay génn sëy fi la xiddati ci biir xidda xidda daañu ko wax su fekkee ne jigéen dafa tàggoo jëkkër ja ko waroon mbaa jëkkër ja ko waroon faatu jël ba mu war a toogaat ba mu warul ne fee mu nekkoon dara taqoo ko fa ci wàllu doom yooyu xam ne set na comme bu koy am set na loolu wax yi da jur boobu nag day araam sax ma wax ko fi ne ko daal laa bëgg a takk ba wér wax nga rek ba mu dëgg te ci dëgg danañ koy aaye kon araam na takk ga takk ga waxaale nañ ko su ko takkee ci biir xidda gi nag ba noppi jote ci ak moom jeex na da koy araam faw ci àdduna lu yàgg-yàgg yow na leen tàqale lu yàgg-yàgg duñ séyati mukk daañu ko leeral ci kanam sax ba tey bu ko takkoon ci biir xidda ji sax bàyyi ba xidda ji jeex mu daal joteeg moom it du tee mu araam araamu dapar ndegam takk man takkoon ci xidda yi rek mu sukkandikoo tey wala maa di ci ay génn sëy boo xam ne jar la ñoddee na ilaa xarayin jëm ci awóora di fii xaqalin ci fas fas mooy maye ba tey nee na bu fekkee daa am wóora di ca maye ga du baax nit ki ne ñoom ñaar bi xamuñu ba xam bëggante na ñoom déet mbaa daal naw sëy ba déet waaye dañ leen di maye rek bu njëkkee nañu tànn bu leen neexee wéel ko bu leen neexee dindi ko loolu du baax ndax loolu xaral awóora bi la xamuñu bu njëkkee lu ñu wax xamuñu kenn ka dana nangu kenn ka bañ a nangu nit loolu bu ñu ko fesee séet na loolu da yàqu kooku may du baax am sadaax ñoom can bu fekkee ne can nga ci boppam mu yore di it noonu nit ki mu cane ko magam sàcc wala fas wu sàcc wala oto bu sàcc nga xam ne moom daal lañ koy cene waxtu ñu toll woon mooy di wax naa lañ koy cene daa war a nekk ayal bu wër boo xam ne bu doon jaay mu wër nga xam ne moom bu amul genn wëru di waaye bu fekkee ne lu mu sàcc rek xamuñu ba xam daañu ko jàpp ngeen mbaa day sax lu mel ne lu réer nga xam ne xamuñu dana fay moom nit gis ko def kenn wala dama di jaay yéen ci dara loo xam ne lay jël suñu dagan bay xool jaayam lépp loo xam ne bu dee ci yoon mënees koo jaay rek xaw mënees koo def can ne bu ne sàngara araam naa jaay araam naa def can bu ne xaj araam naa jaay kon araam naa def can mais lépp lu mënta def ci wàllu jaayante mu dagan rek des ko mën a def itam can wa maa loo xam ne fasa da yàqu na mu ne nikaax ci sëy ba li sadaaq yi ngir canam nga fa sixu kon fiyeef ko xawee binaa ci njëkk wet fayam daxalam di wéet na nag bihaa ak soxna sa magaa kon mu wéy wakaanatu nekk fii ci moom sadaaqu mis li canuk kenn nee na bu yoon seetee sëy ba ne yàqu na waaye kan nga rek a tax mu awtu yoon moom moo xaw a gën woyof mu ne ñu seet bu fekkee jotee buñ dara yoon day tax sëy ba yoon kan nga yoon nee na awtu yoon jotee buñ dara kon da koy tax waaye bu ñu xasee jotee moom yoon da koy bàyyi noonu rek léegi mooy day bàyyi sëy ba wéy te kan nga waxante woon ñu bàyyi ko ñu jox ko nag canu kenn moom can gi yàqu woon na moom yoon nee na baaxul waaye xas nañ jotee kon nañ seet li kenn moroomam ñu jox ko ko rek ba can nga yees bàyyi say bi da xas nañ wér ba noppi bu fekkoon ne wéetu moom nañ koy dindi wala loo xam ne fasa da yàqu na mën a nikaax ci say ba li xeq dañuy ngir pas-pasam ba maanaam ngir maye gaa baaxut wa fa si xati fi def ko baax na binaa ci gannaaw wéet fa fi ko nekk na ci moom al musamma can gën tuddoon nee na nag bu fekkee ne ñoo xool jëmm maye ga ci bopp ma awuti yoon ni ki dañ ko maye te amul kilifa wala ñu ko maye ci biir xidda wala ñu ko maye ci biir armal waaye ko maye mu jëm ci dal yëpp xam nga ne maye goo baaxut kooku faaw yoon na koy dindi moo xam wéet am na maanaam jote moo xam wéet amut suñ ko dindee nag te fekk jote wu dara ku ne day dem rek dina dul sa borom dara fekkee dañ koy dindi fekk na nag góor ga jote jigéen ñi nag kon bu fekkee am na can bu ñu waxante woon muy góor dana ko jox góor bu fekkee waxante ñu woon genn kon mu jox ko canut kenn waaye can la ci mën a ñàkk ndax wéet ga wa taqaw te dana tàbbi bi ci sëy bu sëy bu yàqu yooyu alxurmatu araam nga kama taqaw ni muy tàbbee rek bu nikaax ci ab sëy nga saxiix bi ajéer te kan nee na sëy boobu yoon wax ni baaxut ndax maye gaa baaxut ba yoon ne da koy dund gëpp bu tee la sëy bu baax daa araamal sëy bon boobu dina ko araamal xam nga bu fekkee ne nit xas na takk jigéen rek léegi bu mën a takkati yaayu jigéen joojee bu mën a takkati maam ji jigéenam ba ci aadama sëy bi nga xam ne moom mooy sëy bi it noonu la sëy bi nga xam ne sëy bi yàqu la itam du tee dana tax ñoom ñu ko seq góor ga dama takkat yaayu jigéen ja ak maamu jigéen ak maamam jëm ci kaw ba tey ni ñu waxee ne ku may jigéen ba xas jotee moom bu mën a takkat doomu jigéen ja dama takkati ab satam ak ab sataatam bu àdduna tukki sëy bi yàqu bi noonu la mel fi mu toll nii bu ko see sëy moom sëy bi yàqu ba yoon dindi ko itam du mën a wëlbatiku takk doomu jigéen joojee du mën a wëlbatiku takk ab satam ba ab sataatam bu àdduna tukki nga xam ne moom nit ki nga xam ne itam ba tey xas takk jigéen sa bàyyi mënta ñëw takkati ko sa maam mu góor noonu sa doom it ak feesit noonu liit noonu la mel soo bi yàqu bi li mu yàqu yàqu ba yoon dindi ko it moom góor gi nga xam ne moo ko defe ne jigéen ji bàyyi mënta ñëw takk jigéen ji mbaa maamoon waaw te noppi itam doom ji góoram ba sa tam mënta ñëw takk jigéen jooju mbaa dara waaw nga xam ne daal ni sëy bi yoon di araamal rek noonu la sëy bi yàqu boobu di araamal walakin waaye nag laa taxillu mu dagane bi ci moom al mutallaxatu ko ñu fase woon talaafa ñett mu waaye ko bu nekkee jigéen joojee sëy góor gi sëy yàqu bi la woon dindi ko fekkoon ne njëkkoon naa sëy geneen góor bu góor googa faseel ko ñetti fase ñoo xam góor yooyu ne ko yow dangay xaar ba jëkkër jaaraat fi léegi nag jëkkër ji fi jaar gis nga ko ni mel nga xam ne yoon nee na baaxul bu da koy dindi kon nee na sëy bi yàqu boobu moom du tax nag jigéen jooju mooy dellu ci jigéen jëkkër ji ko njëkkoon yor du tax nag jigéen ji dagan ci du tax jigéen ñi dagan ci góor bi ko njëkkoon yor waaw ndax ci gàttal daal ku yaay jigéen bi fase ko ñetti fase dañuy wax ne dañ ko mën a takkaat jëkkër dafay jaar jëkkër da ko takkaat te day aajoo takkaat boobu di biir ba mu jotee moom te gis nañu jigéen yarit loolu moo tax mu ne sëy bi yàqu bi nag moom du mën a daganal bañ fase woon ñetti fase ci ko njëkkoon yor wala yu xas sami déegul sañoo lay bisi ci moom ak say jaay ni jëkkër jabar sañoo mooy sëy sëy bu wër jote jote bu wër xam ne moom bu fa jógee tey njaaloo rey moo ci war lii nag nee na ñaar ñaar ñi ko seq mu góor waa jigéen ji taxu leen a sëyewu ndax yoon nee na sëy bi baaxul ba tas ko loolu sëy sëy bi yàlla kon bu fi jógee jaaroo na ngeen cawal waaye amul rey wa xarama araamal na allahu yàlla subhanahu saral naa ko lépp lu yem ci moom من النكاء من النساء تجيني من النساء تجيني فبخن دوم نار بالقرابة تفضل بجيني وفبخن أبروم نار برضاه تفضل النبالي وصهر أبروم عليه فقال تم وحمد يالا حزتي بلو جالة المالبو لغا دو دب لأن جيني أمنا تروم نار نيو خمني من لا أرامة تكلم بورجي ومن لا في نوم تم بك جيني عليه كورل am juróom ñaar yoo xam ne nag moom ba tey araamal laa takk mën laa sëy ñëw waaye dafa jaxasoo am na ci yoo xam ne nàmpaalee ko waral am na ci yoo xam ne ngoromaalee ko waral yooyu yëpp nag moom la ñu bëgg a wax ni nga dégg ñu ni xam ne nag araamal leef na aleykum ci yéen ummahaatukum seeni yaay waaye kenn ku nekk yaayam araam na ko ci takk ñu ni yaayam nag maaw mu jigéenam ci la ak maamaatam mu jigéen ba ci aadama wa banaatukum ak seen doomi jigéen kenn ku nekk doom bu jigéenam araam naa koo takk doom bu jigéenam bu ñu ko waxee sët bu jigéenam ci la ak sëtaatam bu jigéen mu wéy rek ba àdduna tukki wa axawaatukum ak seeni mbokk yu jigéen mu nee sa mbokk mu jigéen mën naa am ngeen bokk ndey doomu wala ngeen bokk baay doomu wala ngeen bokk ndey baay ku ci mën doon araam na la takk wa amaatukum ak seeni bàjjen bu ñëwee sa bàjjen moo ci bokk ak sa baayu ndey wala baay wala ndey baay kooku bàjjen la wa xaalaatukum ak seen ndey tax ndey tax mooy ndey bu ndaw maa ci bokk ak sa ndey ndey wala baay wala ndey baay yépp rek benn ram na wa banaatul ax yi ak doomu jigéen yi mbokk mu góor sa mbokk mu góor moo xam ndey ngeen bokk wala mu baay ngeen bokk wala ndey baay ngeen bokk mën laa takk loolu doom bu jigéenam doom bu jigéen sa mbokk sa mbokk mu góor ci la toll raam na la wa banaatu ufti ak doom yu jigéen yi mbokk mu jigéen sa mbokk mu jigéen moo xam ndey ngeen bokk wala baay wala ndey baay moo itam doom bu jigéenam raam na la mu jarbaat dañ koy tuddee kon sa jarbaat moo ko takk fa xawlu day ñii minal xaraabat ñi ngi tukkee ci jegeñaale maanaam ñii mooy ñi nga xam ne araam na ci wàllu jege ci mbokk wala waaye ci ya nga xam ne mën a robaay tukkee na ci nampaale wa siiri ak goromaale xawluhu ma waxi borom bi taala kawe na wa ummahaatukum ak seeni yaay allaati ya nga xam ne arda'nakum nampal nañu leen kenn ku nekk yaayu nampaaleem aram na ko yaayu nampaale mooy ki nga xam ne moo tolloo ci namp ci ñaareet yi nga war a namp te fere boobu dara nampal donte bëgg la nee na ne moo la jur mi nga xam ne moom la sa yaayu bopp ji di araamee moom lay araamee itam kon yaayu nampaale woo ko wa axawaatukum ak seeni mbokk min robaxaati ci nampaale man nga wa axawaatukum ak seeni mbokk yu jigéen dana robaaxat ci nampaale maanaam ba tey jigéen joo xam ne jenn jigéen da leen a boole nampal donte sax kooku juru leen yéen ñaar waaye daal nampal na la nampal ko rek moom jigéen ja kon day mel ne yéen a bokk jenn ndey bépp jigéen joo xam ne bokk ngeen nampal day mel ne yéen a bokk jenn ndey rek jigéen ngeen nampal day mel ne moo seen yaay mel ne yéen ñëpp ay doomam ngeen ko defee yéen ñaar kenn ci mën a sëy moroom ma wa ummahaatu nisaayikum ak ndey yi seeni soxna maanaam ñoo ko takk te wax sax ne bu nga xasee may soxna rek donte may ga doo nga fa jaarit jeex la nga ci yaayi ko ñoo ñu la may ak maam mu jigéenam ak maamaatam mu jigéenam yooyu ba ci aadama ñu tojaa takk kenn wa rabaibukum ak seen doomu jiitle ak laaki yi nga xam ne fii xujoorikum nekk nañ ci seeni penk wala nekk nañ ci seeni yiir min nisaayikum doomu jiitle allaati ya nga xam ne fi xujoorikum nekk nañ ci seeni penk wala nekk nañ ci seeni yiir min nisaayikum bàyyi ko ci seeni soxna allaati ya nga xam ne daxaltu wéet ngeen bi hin ak ñoom ba tey nee na sa doomu jiitle joo xam ne xas na wéetu yaayam du wasee takk jigéen fekk mu amoon doom léegi bu fekkee mayu kese la nga xam ne moom jigéen yi jotul ak moom dañu ko may rek bu la neexee bàyyi ko dem ci doom bu jigéenam waaye bu fekkee wees na may gi nag léegi ba jote gi am moom da nga daal di jeexlu ca nga doo mën a takkat doomu jigéenam bis doomu jiit la jooyee teg na sax fa in lam takoonoo dem nekku leen taxaw tam di wéet di hin ak ñoom falaa junaaxa kon de bàkkaar xale kon nekk ci yéen di war ci yéen ci nu ngeen takkee doom ja te bàyyi yaay ji waxalaa ibu abnaayikum ak soxna yi seen doom yu góor am na seen doom yu góor yi nga xam ne man aslaalukum tukkee nañ ci seen i dëkk sa doom ju góor bi nga xam ne nga ko di dëgg dëgg bu rek koo doomoo da nga ko di dëgg dëgg kooku mën laa takk soxnaam waaw te mën takk koo xam ne sa doom ju góor takkoon na ko déedéet wala takku kese la it moom bàyyi bi jeexal na ci wa anta jumaxu ak ngeen boole beneen uxtaan diggante yaari mbokk yu jigéen boole yaari mbokk yu jigéen mooy ñaari jigéen ñoo xam ne kenn koo ca mën di soppi muy góor rek bu mën a sëy ka ca des ci yoon ñëpp ñaari jigéen ñu mel noonu nga xam ne daal koo ci mën di soppi muy góor bàyyi kenn ko muy jigéen bu mën a sëy ndax lu jógee mbaa ngi leen nampaale mbaa yooyu lu mën a jékki-jékki yorandoo leen yow ñu seen soxna mën ngaa rekkee mu faatu nag nga war ko ca des wala nga rekkee tàggoo nga war ko ca des waaye ngóor leen ñoom ñëpp nag benn ñu doon seen soxna mënta nekk xam nga ko misaale ñaar ñu bokk ndey mbaa bàyyi mbaa ñu bokk ndey bàyyi ak demee noonu daal xam ne moom kenn ku mënta sëy moroom bu doon ngóor kenn ci mënu saay mënta sëy moroom bu doon ngóor mu doon leen ñorandoo daal moom mënta nekk yorkee mu faatu nga war ko ca des nag mbaa yorkee ngeen tàggoo war ko ca des moom yorkee ngeen tàggoo war ko ca des yëpp mu mën a am islaam moom dara la nga xam ne xad salafa jiitu woon nag njëkk lislaam nee na yii liñ ci wax ne aaya nañ ko looyee ku ko defoon njëkk ñu koy aaya bu wàññi dara gannaaw bi ko yàlla aaya ba noppi nag ko def yaay aw wàññin wa qaala wax na taala kawe na ni walaa tankixoo bu leen takk maa la nga xam ne nakaxa takkoon na ko abaakum seeni baay mu ne misaay ci ay jigéen bokk na ci araam koo xam ne baayam mas na koo fas comme na fa fasal baayam rek doonte sa fas nga ci layam te bu ñu waxee bàyyi itam maamu góor ci la koo xam ne maamu góoram mas nañu ko koo may donte may kese la it moom muy doom ji mbaa muy sët bi jeexlu na ca te mu mën a takkati waxaral araamal na annabi yonente bi salla yonente bi tedd nga allahu yàlla alayhi ci moom wasallama tam doolu ko wóolu bi radaaxi ci sabab bu nampaale maa la nga xam ne yaxaru dana araam mën na nasabi ci askan la yonente bi leeral na ne lépp moo xam ne boo ko jëgal nit ci askan mu araam la ba tey boo ko jëgal nit ci nampaale ba tey mu araam la waaw kon gis nga ne ni nga ko waxee woon bu ko jigéen nampale yaayam la kon nañ daal jàpp ne ku jigéen jooju jur rek fi mu toll nii mbokk mu jigéenam la waaw mbokk mu jigéenam la nga xam ne day ñoo bokk yaay bu fekkoon ne ñaari xale ñi kenn nampal na leen ba ñu wax ne léegi ñoom ñoo bokk jën ndey kenn ci mën takk doolu morom ma walla bëgg naa wax nga xam ne léegi nee nga léegi kenn takk sa doolu mbokk mu góor kenn takk sa doolu mbokk mu jigéen loolu it noonu lay mel nga xam ne bu ñaar bu ngeen bokkee namp jenn jigéen ay mbokk ngeen kenn mën leen a sa yooyu ñaar waaye itam kenn mën caa ëlbati ko takk doolu morom ma yooyu rek wane la tere woon na ma warante bi am tun ka xam bu defu takk almaratu jigéen xalaa xammatihaa ci kaw bàjjanam aw xaalatihaa wala ndey taxam loolu mooy boole gi waroon léegi mu ne warante bi aaye woon na takk jigéen joo xam ne fekk na nga war a bàjjanam wala fekk na nga war a ndeyam bi ndaw ndax kon yaa ngi boole ñaar ñoo xam ne boo soppee kenn ko muy góor duñ mën a bokk sëy loolu nag ñaar ñu ngoorandoo leen nag la ñuy bañ wax ne loolu ne la yorkee mu faatu nga york ca des mbaa yorkee ngeen tàggoo nga york ca des moom ayut te man naka xa ku takk imraatan jigéen xaramat kon araam na bil xaq bi ci fas ci fas ga rek mooy ci maye ga dong mën a am tu mos sa ci lu bu dee fi laal ko xalaa abaayi ci ay baayam wa abnaayi ak ay doomam nee na ko xas takk jigéen jëm maye ga rek ba mu sottee ba ñu ko maye ba noppi rek nga xam ne jot fa amut jigéen joojee fi mu toll ay baayam moom góor gi ak i maamam mënuñ ci mënuñoo ñëw takk ko ay doomi góor ak ay sëtam mënuñoo ñëw takk jigéen joojee kon mën nga ne koo xas takk rek. donte amay kese la dara la doxul li may kese itam sa baay ak sa maam jëm ci kaw jeexul nañ ca sa doom ju góor ak sa sët ba àdduna tukki jeexul nañ ca wax ramat te araam it xale yi ci moom ki takk ummahaatuha yaayu jigéen joojee nee na bu nga xasee may jigéen moom donte may kese kese la it fi mu toll jeexlu nga ci yaayu jigéen ja jeexlu nga ci maam mu jigéenam mu wéeju ba ci aadama mënoo mënoo jaa takk kenn wala taxaruma bi araam nag xale ci moom banaatuha ay doom yu jigéenam xataa ay doxalam ba te mu wéetee bi ummi ak ndey ja aw yata laf dita wala mu bànneexu bi xaa ca ndey ja bi nikaaxin ci ab sëy aw mil ki yamin wala moomu ndey jooru aw bi fat wala ci jaawale min nikaaxin ci sëy aw milki wala moomeel nee na ñu may la jigéen ji kese mu may kese moom di la yàqal doom baab sutam balaa doom baab sutam ci araam ci yow rek ngeen weesu jëmmi fas bi ba nga xam ne jote ngeen yéen ñaar moo xam jote ga la ko waral mooy takk boo ko takk wala moom ngoo ko moom mooy sab jaam moom la ndeyjoor gi wax mooy nga moom ko sa loxo rek mooy sab jaam fekkee moo tax nga joteel moom waa takk goo ko takk mooy jigéen ji moo tax ay jamono nag kon danañ takk doom bu jigéenam mbaa sutam waaye bu loolu rek wala ba tey boo ko jaawale ak sa soxna mën nga jaawale ko koo takk wala nga jaawale ko koo moom mais da nga ko jaawale sa soxna ba jotee moom mbaa nga jaawale ko sa jaam bu jigéen ba jotee moom lu ci mën doon moom boo ko mën a jéggee ti jàll ci doomam mbaa sutam waaye bu loolu amul rek nga xam ne mayoo kese fa dox moom mën nga koo bàyyi doom ci doomam mbaa sutam wala yaxrumu du araama bi sinaa ci njaaloo xalaal aji law njaaloo nag moom lu araam la bu yàq la daga noon bu nit njaaloo na jigéen du tax yaayu jigéen ji araam ko du tax doomu jigéen ji araam koo takk du tax futu jigéen ji araam koo takk bu nit njaaloo na jigéen du tey bàyyam mën naa ñëw takk jigéen ji sax bu ko seexluwut ndax mu ne ne lu araam bu yàq loolu kon daal wax ju wax ju wax ju gàtt la waaye ju leer la moom lu araam la moom bu yàq la daga noon وحرم أرام الله يالله سبحانه سلنا كلب يولجون وطأ الكوافر لا ليوفر جيانيه ممن تكيب كوخم ليس من أهل الكتاب دون يبوك نيون تيري بملكن تي أم موميل أو نكاحين ولا تك نانا كوخم يبوك تي أهل الكتاب أهل الكتاب موي اليهود والنصارى ñoo daan wax seen atté man nga ca tak ci kaw nañ ko do waye waye nak ko xamni mom yefur la te nekku ci diine ji bàyyi ko ci asamaan nekku diine nasaraan nekku ne diine yahut yow lu julli mënoo ko takk soxna mënoo ko takk soxna ba joteeg moom mënoo ko moom itam ab jaam ba joteeg moom mën nga ko moom sa jaam nag nga di ko liggéeyloo rek waaye doo mën a joteeg moom ni ni soxna mënoo ko takk itam soxna wa yaxillu dana dagan wattu ul kitaabiyaati laal ko jug téere bil ma ci moomeel ko jug téere yi mooy ki nekk ci diine yahut mbaa nasaraan diine yahut mooy diine ji nga xam ne Moussa alayhi salaam ci moom lañ ko wàcce woon diine nasaraan mooy diine catholique mooy ji nga xam ne ci Xiisa alayhi salaam la jaare woon yooyu la jigéen ju ca bokk su dee gor mën nga koo takk bu dee jàmb jigéen ba tey soo ko moomee jëmi moom nga ko woon sa alal la mën nga koo soxna woo def ko ne soxna fi mu tolloogu nag mooy nga moom ko soxna woo ko nga moom ko jotee moom def ko ne soxna foofu la tolloogun mu teg ci weexil ñu dana dagan wattu xaraa irihin na laal seeni gor buñ ne ci takk waaw ku doon gor ci ñooñu ci yahut mbaa nasaraan mën nga koo takk soxna wala yaxillu dagan nag watu imaahin na laal seeni jëbbeef bu nikaaxi ci aussi daganul li xorul ñeel gor wala li xabdin di yoonu ñeel jaam xam nga dañoo waxoon ne ñooñu ko ci xam ne yaa ko moom muy ab muy sab jaam mën nga koo joteeg moom mën ngaa joteeg moom ngay def soxna waaye damay nag koo ci xam ne jaam moom doo ko mën takk soxna gor sa nga mën a takk waaye ka ci doon ka doon jaam ci ñoom moom doo ko mën takk soxna waaye léegi daanaka moom ñu xëpp xàmmee gor ak jaam daanaka xawut am léegi wala tatasawwaju bu sëy ak almaratu jigéen xabdaha jaamu bu góor wala xabda wala diha du caa génn jaamu bu doomam dafa wax ne nag jigéen bu amee jaam bu góor bu mu wëlbatiku jaam bu góor bu nekk jëkkëram xanaa bu nekk goral ba agal bu nekk gor wëlbatiku takk ko waaye li fi mu ngi doon ab jaamam moom xam nga bu mu jaam bu mu tooxte la te bu mu sëy moom bu mu nawlonte la kooku nag moo tax mënuñu ànd ba tey sax jigéen ji mënta fekk jaamu doomam lépp mu def ko jëkkër fekk jaam boo xam doomam ko moom moom jigéen ñi mu def ko jëkkër déedéet faaw dañ koy goreel ba noppi rek goreel ba noppi nag su ko neexee mooy jigéen ji mu def ko jëkkëram wala rajulu déet góor it muy féet amata moo jébbéeram wala amata wala di du caa génn jébbéeru doomam maanaam boo amee jaam bu jigéen neen la mën nga koo def ne soxna di jotee moom ni nga jotee soxna waaye nga jotee ku takk ko soxna nag mën du nekk ndax ñu ngi ko waxee léegi xam nga buumu njaam ak buumu sëy dañoo safaanoo buumu njaam moom sang ba day moom mais buumu toroxte waaye buumu sëy moom buumu noolante la dala neex nag goreel ko ba nekk gor nga wutali takk ko ba tey sa jëbbeeru doom itam dalaa jege moog ndax doom ji yaa ko moom ak alalam kon nag jaamu jigéen boo xam ne sa doom ko moom mënoo koo jot takk soxna yow mi bàyyi sa doom ji yow mi bàyyi wala ma ñeel na ko ay yata zawaja mu takk amata walidi yi jëbbeeru bàyyam wa amata ummi yi ak jëbbeeru ndeyam maanaam nag bu ko neexee nag mu fekk bàyyam am jaam bu jigéen moom mu takk ko soxna wala yaayam am jaam bu jigéen mu takk ko soxna bàyyam moom moo mëntoon fekk doom am jëbbeer mu takk ko soxna waaye boobu mën na loolu wala loo ñeel na ko an yata zawaja mu takk bin tamraati abi yi doom jigéen ñi soxna si bàyyam ñu la jigéen tukkee ci góor xëy yi gënul bàyyam nee na bu fekkee ne yow góor nga sa soxna sa bàyyi àndaale fi doom bu jigéen boo xam ne sa bàyyi juru ko te it ba muy ñëw fekk na ko nàmp ba noppi ndax bu àndaale nàmp moom day mel ne kon yéen a bokk bàyyi waaye bu fekkee àndaale fi fekk na moo weesoo nàmp daal te ko sa yaay di yor yaayam daal fekk na moom moo weesoo nàmp kon yow mën nga koo takk wata te sëy bi nga sëyeeg almal atu jigéen dëkk na sëy jëti abiha doom ju góoru soxna si bàyyam mu nga jëloon tukkee ci góor xëy bi si budul bàyyam
yaari wax yépp rek benn lañ wax bu jëkk bi dafa laa nattale ngay góor mu wax ne bu fekkee ne soxna su bàyyi àndaale na fi doom ju jigéen joo xam ne sa bàyyi juru ko da ko fi àndaale ni ñu ko waxee kon da nga ko mën a takk soxna bi yoon nag mu nattale la ngay jigéen wane ne bu fekkee ne sa soxna su bàyyi àndaale na fi doom ju góor da nga ko mën a def jëkkër xam nga ne kon ñaari wax yi benn lañ
waye joosu dana dagan lil xorri ñel gor wala xabdi ak jaam nikaaxu arbaxi xaraira takk ñeenti gor muslimaatin ñu di ay julit aw kitaabiyatin wala ñuy ko jub téere nee na góor moo xam gor la moom góor gi moo xam jaam la mën naa takk ay soxna ba àgg ci limum ñeent bu ko neexee ñeent ñëpp gannaaw bañ doonee gor moom bu ko neexee ñoom ñëpp ñu di ay julit gannaaw bañ doonee gor bu ko neexee ñoom ñëpp ñuy ay kitaabiyaat kitaabiyaat maanaam daal bokk ci diine yahud mbaa nasaraan lu ci ne daal muy julit muy diine yahud mbaa nasaraan mën na jaatak ay soxna bàgg ca ci ñeent waaye ñeent nag bañ koo weesu walil xab di ñeel na jaam nikaahu arbaxi imaayin takk ñeenti jébeer muslimaati ñu di ay julit jaam moom nee na bu ko neexee bu amee daraja yi maanaam bu amee man mënu mën a takk manam jam mom may nañ ko mu tak ci ay jaam yu jigéen ñeent man na am ay soxna yoo xam ne doon ñeent te ay jaam ni moom waaw jaam moom jekki-jekki takk jaam ni moom teguñu ca benn sart moom bu xasee doon jaam rek moom góor gi mën naa takk ay soxna ba takk ci soxna yoo xam ne ay jaam ba am ñoom ak moom daraja gor nag moom suñ te jekki-jekki dem takk jaam waaw wala moom lay bëgg wax walil xorri ñeel na gor zalika loole in xashiya ndem ragal na alxanata njaaloo walam yejit te amut tawlan can lil xaraayri ñeel gor ya nee na gor nag moom gor ne moom lay sañ a takk lu may nag maanaam alal ji ñu war a def ci gor ne moom ba jot ca yàlla def na amu ko te it dafa jàpp ni su fekkee tëkkul soxna du moom boppam faaw rek mu muy yàlla waaw su boobaa kon daañu ko may mu takk jaam ngir loolu ngir ngir ngàntali kon des na ko may mu takk jaam wal ya adil na yamale bay na nisaayi diggante ay soxnaam képp koo xam ne yor na bopp benn soxna yoon da koy gétan ci da leen di war a yamale yamale gi nag mooy bu fekkee ne moom ci wàllu dund bi la ak ci wàllu koddaay li ak ci wàllu dëkkuwaay moom kenn ku nekk mën ne dafa des naa seet fa dara jaam toll ñu dëkkale ko noona solale ko noona wodde ko noona xam mën nañ ci appante moom ci kaw rek ni seen daraja toll mu des nag nekk gi nekk gi moom moom la ñu war a yamale yamale gu yam képp nga xam ne bu nekkee kii tey boo liggéey mu nekk kee bu nekkee kii tey boo liggéey mu nekk kee waaye kooku moom mun na ñàkk a yemoo duñ ko sartal sax ne ko koo war a koo nekkal faaw nga jotee moom bu fekkee rek ñàkk gaa jotee moom dulum tey nga xam ne moom da koy dëngee mbaa ñeneen daal la ci seet waaye loolu rek mooy aay waaye duñ ko wax ne ko sax faaw rek koo nekkal faaw nga jotee moom ci wàllu jote gi itam nam ma ne rek waaw bu fekkee daal jubluwu caa tooñ koo ko ki mere ko mbaa di ci feeñal mer mbaa yi rek dara nekku ca waaye nekk gi moom faaw mu yemoo nga xam ne bu fekkee kii la war a nekkal tey kooka aaye sax du sañ a dugg ca néegu ko ca des bu ca soxlaa day taxaw fee laaj ci bitti ñu jox ko ko waaye du sañ a dugg ca biir motax mu ne wax alayhi war na ko an nafaxatu dund ba wa sukkuna ak dëkkuwaay ba bi xadri wujdihi ci kem kàttanam maanaam dund ba mu war a dundale soxnaam mbaa fa mu ko war a dëkkale moom ne kem kàttanam toll rek am na ñoo xam ne dañoo am amu man lool am ñoo xam ne ñoo xaw a tële yàlla seen wërsug yaatalu ko lool ku nekk noo mën rek yore ko sa soxna wala xasma deetug seet du film biiti ca panaan ma li amati yi ñeel jébéeram wala li ummi wala di yi du caageenu ñeel ummi wala tam mu walat ndey doom lay firi te it maanaam mi loolu la mooy jaam bu jigéen boo xam ne yaa ko moom waaye xas nga am ak moom doom loolu moo tudd ummu walat dafa wax ni soxna yi nag ñoom lay séddale nekk gi bu nekkee kii tey bu nekk ërgee mu nekk kee waaye bu fekkee am na jaam bu jigéen moo xam bu amal doom la ñu koy tudde umu walat wala amut ak moom doom waaye ab jaamam la ñu koy tuddee rek jébbeeru kese kooku moom du ko sedd du ko sedd ci nekk gi du wax ne soxna yi ñoo moom kii soxna si moomam tii tey soxna see moom moom ëllëg bëgg caa limaale itam jaamu jigéen yi jaamu jigéen moom saa yu ko soxlaa rek mën na mën na koo def ni soxna waaw saa yu ko soxlaa jotee waaye du ko sedd nag ki nekk gi du ko sedd ci ay yi daal ci gàttal wala nafa xata deetub dund li soo jëti ñeel soxna ñeel soxna sax xataa ya doxala ba te mu wéetee biha ak moom aw ñu duxaaw la def ki ko woo ila duxoo li jëm ci wéet ga wax yette fekk na moom soxna sa mi man muy koo xam ne yoo taw def na mën a laal def na mën a joteeg misluha moroomam dafa wax ne itam ñu may ko rek soxna taxul dépasse ba koddaay daal di koy war a fi saasa bala ko caa dépasse mbaa koddaay mbaa dëkkuwaay war dañ ko koo jëbal di ko soxna saa ngoog mbaa boog ba baamuwaat ko bala ko caa dara war ci yooyu na bala koo dunde war wala koddaay wala dëkkuwaay daa wéet ak moom mooy mbaa boog la tee mu wéet ak moom ci ci moom la waaw kenn doxul diggante mu wéet ak moom ndax jëmmi soxna si ci boppam mënees naa joteeg moom te kenn aayiwu ko waaye moom xëy na moo ci jubluwut su boobaa kon dana war di joxe dund ak dépasse yëpp waaye bu fekkee day gone goo xam ne kenn mënta joteeg moom yooyu jamono dara du ko ca war